pouvoir bi dootul musa amati ci réew ni Macky nappee sénégalais yi dafa <laughs> dafa jéggi dayoo mooy mel ni benn grand boo xam ni wala benn booy boo xam ni dafa napp benn nit non gis nga euh, sama exemple laa joxe bu ma nekkee sixième secondaire musuma am doole nag nu ma tuuti nii dama yàgg nappaate dama nappoon ay boo yoo xam ne ñoo ma wëroon ñu ma bokkal table ak ñu nekk sama kanam ak yooyu parce que école privée laa doon jàng école privée catholique Pidouze léegi man sama baay baadoola la pour mu fayal ma 6000 francs yi sax lu ne laay daj sa daf may saaga ndey ci mbedd yeeg lu ne pour balaa moment moo tax benn année laa ko def école privée benn année sama àdduna léegi man comme am naa fit ma napp ñi nga xam ne ñoo ma wër mooy ki ma bokal ban ñaar ñi nekk ci kanam ak deux yi nekk ci ginnaaw léegi man du ma ndékki bu ma ñëwee du ma ndékki mais damay ndékki xam nga lu ma ndékki damay nappaat <laughs> damay ñëw rek ne ci kanam loo yor ne ma man mburu ak euh, porc laa yore porc sa tey moom porc lañ ki ma ne non du ma lekk porc yow téye la yow loo ma non mu rek ñebe ma si suuf si suuf table bi bu ko wàccee si suuf table bi ma encaissé ko ci suuf dugal sama saak ne ko yow loo yor booy loo yor ma non man mburok euh, beurre man non tey ma aw ma ay booy loo yor mu man mburok soos laa yor sama yaay mën a indi donc bu récréation bu jotee mu dugg ci douche bi lekk ba sama biir fees ñoom mooy lekk seen mburu yi lekk ci lekk mburu yi ba sama kii man naan ci ndox mi ba ne kër ñëw toog doonuma ndékki ndékki bi ci école bi laa ko doon yaakaar te ku ñëwul indi danaa la ñuus suba na ngeen indi ndékki ñu ne waaw ragal la ñëwul suba na ngeen indi ndékki de waaw parce que doonuma nekki léegi ci ñoom laa doon ndékkee année boobu yëpp dañ maa mujjee boole préfet ba ba préfet bi yóbbu ma bureau noq ma noq yu metti sax di ma front concert la table di ma assis debout di ma dóor yi régal ba muy bëgg parce que dañ maa mujjee boole tu vois donc Macky Sall dafa mel loolu la def peuple bi daf leen a nappa nappa nappa napp ba munu duñu lekk duñu naan di di di di leen def lu leen neex léegi dem na ba nga xam ni léegi Macky Sall moom buy buy convoqué peuple am <laughs> téléphone la leen di convoqué <laughs> da ngay gis benn suuleet naa rek ne allo Moussa Wa waaw ça va man la man la leet naa mu Moussa Wa Moussa Wa Cissé waaw leet naa Ndiaye ça va da ngeen def waaw wuyu sil dik suba ah <laughs> yooyu yooyu ne waa maa ngi ñëw rek ñu ne yaay gënal la yooyu dig nag o oh, oh, yaay yaay ñaanal leen ma yaay wàccal leen ma kaamil yaay taril leen ma saar yaay dóor leen ma ay xulu àllaaw way ay yooyu dig woo nañ ma oh, tante yi yaay ji tiit papa ji waay woo sëriñ yi sëñ bi ñaanal ko woo nañ ko dig de kii muxura muxura ñaanal ko sëriñ ndimba sëñ ndimba ñaanal ko ñu commencé woo sëriñ bi fekk benn doomee xaraw gu toog fee moo woote <laughs> noonu lañ def seen bu moom tamit Seynabou dañoo jël rek téléphone rek allo waaw Seynabou kooku ah, man la général kii kaay wuy si di uh, wuy si Seynabou jël ay bagages am dem wuy ba mu wuy jee chef bi nee na ko yow man xaw la wallaay laazim chef bi def na ko man xaw ma la yow yaakaar mu ne ko man la Seynabou dem dañ maa woo ne ma ma ñëw wuy si fii brigade bi gendarmerie bu Colobane kooku ne ko yow ne ko non man gisuma fi sa tur de sa tur seegu fi de. mu a mun a waaw dam la laaj Seynabou dina leen expliqué Seynabou ne loolu vendredi la woon vendredi chef bi jël téléphone am woo dik woo woo procureur procureur ne kuy kooku non ko ne pas cette fille là procureur Abdou Karim ne ko non je connais pas cette fille là mu ah, dafa ñëw fii ne ne yow yaa woolu affaire yooyu quoi dañ ko woo démb procureur ci boppam ne non ko ne pas cette fille après gendarme bu mu fa fekk ne ko léegi da ngay bind da ngay def procuration quoi da bindu bind ma lan benn feuille daal wane nii ñëwoon nga fii mais ñun woowu ñu laaj nangu c'est convocation ba pare ne ko léegi ñëwal lëndi lënd bi lañ ko jàpp démb ne ko ñëwal lënd de fekk boobu gars yi huilé nañ affaire ya tak ñëw na fa gars yi gis nañ ko après woote tak tak tak procureur moom tamit yéegal téléphone bi takk woo ñeneen ñi lan la ñu ne ko non seen bu moo fi ñëw mais ñun xamuñu kuy kooku affaire ñun non non jàpp leen ko procureur ci noonu la ko xamee. da ngeen ko bàyyi mu dem waaw non jàpp leen ko nga naan la xiir ko mu dem yéen jàpp leen ko jabaru kii la ah jabaru Tayrou saar la jàpp leen ko mais non non non jox sa waay mujj na ko gendarme bu mu fekk fële sax gendarmerie Colobane bi jox nañ ko benn kii bind na benn programme mais lundi lañ ko woo non da ngeen ko doon jàpp mun njaaxule ko woo mun njaaxule ku mun njaaxule non benn gendarme la bu nekk buy taxawaalu foofu moo ko woo moom jox téléphone ko wool wool seen bu mun le ko woo ah jàpp comme marché mun njaaxule lañ wax mu woo ko mun njaaxule woo ko mais mun njaaxule waxu waxu leen ko mais mun njaay moo ko mun njaay nee naa ko boo wooyee koy wax kii kii wax ko kee wax ko kee moom moo tamit mun njaaxule koo la wër na lu mu lekk xaw ma lan xam na caaf la doon wër noonu mu fàtte affaire yi mu def dafa ñëw amul lu mu ndekkee wala dara non merde euh, waaw non mu ñëw lënd bi la ñëw bu mu ñëwee dee mu ñu jàpp ko <laughs> bu mu ñëwee démb lañ ko doog a jàpp wallaay mu ñëwaat ñëwaat ñu ne waaw waaw wax nga dëgg waaw yow yow seen yaay seen bu non waaw waaw d'accord ci lañ ko jël tek ko foofu ci see kaay kaay kaay ah, lan la ah <laughs> ñëwal sa tur da ngaa dem rek sa tur ñëw ñoo da ngaa dem rek sa tur ñëw ah bon sama tur billaahi da ngaa sa tur ñëw toogeel nii garde à vue garde à ci kanam procureur nii seen bu noonu wallahi al azim billaahi wallahi wa taala nii la demee lundi lay doog bu mu ñëwee <laughs> ne ne ko yow sa da dem rek sa tur egsi mais di jàpp sénégalais comme ay xar ak ay bëy jàpp ay téléphone quoi alors alors waaw kookan la Ousseynou Bathily Ousseynou Bathily waaw waaw Ousseynou waaw waaw man la caporal Tungañ man la caporal Tongagne ah caporal Tongagne <laughs> bu fan non brigade spéciale des des renseignements généraux extraordinaire euh, euh, de la brigade de la gendarmerie de Colobane ah waaw waaw ça va waaw ça va <laughs> waa ji mi ngi lay wax caporal caporal fu muy wiisi noonu naa wisul gendarmerie gendarmerie bu <laughs> Colobane à 10 heures 10 heures 5 minutes 10 heures 5 minutes ah <laughs> waaw d' accord d' accord mon colonel fekk caporal d' accord mon colonel <laughs> téléphone bi commencé daw dugg si réseaux sociaux on m'a appelé on m'a téléphone wuy yaa le général colonel mu ngaañ m'a appelé aujourd'hui je dois répondre demain nga gis nag gole yi commencé di commande ndeysaan mastawaay non muñal ay eh, Macky Sall dañ ko war a ñuus non Macky Sall dañ ko war a noq non Macky Sall lekk dafa pël non Macky Sall dafa reew non Macky Sall nekk dañu a tegal maamam non Macky Sall euh, commentaire yi nag ñëw ñëw ñëw xool waa jaa ngi moom di annoncé suba gaay suba damay wuyu si dix heures woo ma léegi <laughs> le colonel Tungaañ fekk caporal la le colonel Tungaañ maa appelé ñu commencé non Macky Sall mi ngi appel non Macky Sall mi ngi mi ngi fuy non Macky Sall yow yow Macky waa ji dem nañ ñu ñu garde à vue ko te amuñu dara luñ ko jàppee garde à vue ko di wër luñ ko fenal garde <laughs> Sénégal Macky Sall noonu la yàqee suñu institution yi tekkiwuñu dara dara duñu tus moo ta chaque jour dama leen wax noonu naan leen ñoom gars yi ñu ponkal yi ñuy ragal yooyu ragal barke alxuraan ponkal yooyu ñun la ñu ragal <laughs> ak suñu tuutiwaay ñoom ponkal yi ñu ragal ñi nekk Sénégal di leen terroriser ñooñu ñun la ñu ragal ñun duñ toog guddi te wuñu di jéem a xam ay renseignement billaay wala ponkal yi naan ay général ak ay colonel ak duñu dara ba ñoom colonel Cheikh Sarr <laughs> maa ngi koy nuyu de passage colonel Cheikh Sarr <laughs> maa ngi koy nuyu xam na ma xam naa ay ñoo gën a tàppat lañ bu ñu yëngalee dara ñuy woote woote di jooy di ñaan di saraxu barke alxuraan di wër ñu ma xam ak yooyu non woo leen moo la man mënu ma ko woowal kii fekk duñ dara duñu tus gannaaw yooyu du ñu nix mais dañoo napp gars yi xeetu nappel goo xam ne gars yi ay yàlla lañ leen def quoi ñi leen di woo ay téléphone ay ay appel téléphone convocation par téléphone mais foofu maam loolu fan laam nan la nit di wuyee convocation ci téléphone ñaata ñoo nekk ci kaso bii rëbës ak liberté 6 ah camp pénal yoo xam ni ñooñu convocation téléphone lañ leen woowee ci lañ ci lañ gëj a gis seen yaay comme porte aller sans retour ay convocation par téléphone mais saay faites-vous respecter faites-vous respecter ay nit ngeen doo ay mala ay nit mu ñu toog fu ñu toog di leen gololoo di leen foowee te tekkiwuñu tus ñu dara loolu lu koy def nag moom mooy nee naa leen booloo leen booloo leen ànd leen nekk leen benn booloo leen ci ngeen leen seen force di amee njëriñ boo leen boolee seen force day am njëriñ ngeen tekki dara ci réew mi mun a taxaw di résister résistance boobu moo leen ci mun a génne mais tant que yéen a ngi bàyyi ay nit di dem ngeen ne doo leen manifester wu xam lan mooy manifestation lan lay wane. manifestation day wane ni li ngeen teg nit ki nanguwuñu ko mais qui di dit rien consent bu ñu jàppee du Ba bi ñëw nekk vache à laitière peuple bi di leen éveiller di leen waxal di leen xamal di leen yee di leen wax li xew di leen tempérer des fois. ñi jàpp ku mel noonu amul manifestation bu gën a tuuti ça montre que vous l'avez vous avez accepté cette forfaiture ça montre que vous avez accepté cette forfaiture parce que xeexu leen ko wanewu leen naqar wanewu leen mettit mais bu boobaa Macky Sall day ñëwaat parce que ñëpp da ngeen dem ci mur de lamentation bi rek yuuxu fa rek faalewul loolu nit ki bu amee benn forfaiture wala injustice bu ñuy teg doomu aadama peuple bi dañu war a génne même bu dee benn vingt quatre heures la wane ni lii ànduñu ci lakk lii taal lii boyal lii moxoñe lii ba ku fa romb xam ni peuple bi dañoo génn tey fippu ndax li ñu teg telle personne ànduñu ci du dëgg du yoon wane nañ seen amertume fu foo jaar gis ni peuple yi romb nañ fii foo jaar gis ay yàqu-yàqu lu wane ni peuple romb nañ fii dem bu boobaa Macky Sall day xam ni lii mu téye ci loxoom mais bañ bu tàng la beñe bu tàng la bu boobaa dina xool nan la koy tege donc il faut ngeen di maanaam joindre l'utile l'acte à la parole l'acte à la parole ngeen bàyyi di seetaan ñi jàpp nit yi comme ci yéen di leen benn bennal ak di leen yóbbu man je l'ai dit à mon petit frère France ba France daj Paris ba Paris daj liñ jàpp sama petit frère jàppee wuñ ko doomu aadama est-ce que mës ngeen dégg ma wax ci sama petit frère bi ñoo bokk ndey ak baay mon petit frère Idrissa Niass amul activiste combattant bu nekk Paris bu ñu interpellé ci niñ ko jàppee amul xeex bu amul buñ ko jàpput et pourtant ñoo bokk mosu la dégg ma tudd turam parce que dama ko te ñoon ñëpp maa leen influencé man sama kër ku fay xeexkat ku ma mag ku ma ndaw man maa fa njëkk a xeex bu may xeex ñoom ñu ngi soli kuus ñi ngi leen di ngemb maa njëkk a xeex sama kër maa fa njëkk a nekk gréviste man la sama papa jur maa njëkk a nekk gréviste sama kër maa njëkk a nekk bañkat ci sama njaboot si suis la première personne rappeur gréviste combattant man maa génn ci famille boobu nekk ci combattant changé ñëpp bu may xeex ñoom ñi ngi may topp maa influencé képp kuy xeex sama kër maa la influencé maa la def xeexkat sama askan laa la sama askan ba mu jeex tàkk maay premier rappeur premier gréviste premier combattant premier xeexkat man la sama askan ba mu daj koo gis muy xeex man la xool koo gis muy xeex man la topp maa njëkk a woote sama askan ba mu daj kaa leen ñu xeex ci mbedd mi après famille bi yëpp ma topp bu njëkk bi dañuy wax kii dafa dof kii kii day xaru kii day nangam mais fam yëpp ma topp sama rakk Idrissa Niass moom ngeen di gis muy def ay live di xeex di wax gëm ko luñ ko interpellé ci France amul doomu aadama buñ fa interpellé chaque jour mi ngi ci kaso bi chaque jour te sàccut jëlul aloolu jàmbur xeex saa yi fa Macky Sall ñëwee mi ngi ci kaso bi ba Youssou Ndour bu mujjee ñëw ñu koy yuuxu mi ngi ci kaso bi ba tey lañ ko doon jugé musuma ko woo musuma ko wax dara xam nga lu ma koy wax boy yow yaa ko choisir c'est ton combat bul xaar daray sénégalais boo boo xaaree sénégalais seen réaction di nga am déception de ndax gaaw nañ ci wor gaaw nañ ci daw nit gaaw nañ ci fàtte nit soxor nañ benn xeetu soxor boo xam ni même soutenir nit sax dafay dafa diis ci ñoom des fois dafa bëri ci ñoom ñu soxor ñu bon ñoo xam ne ñu di partager iñaan seen xol yi bu ñu sañoon nga yàqu bu ñu sañoon nga torox mais ñooñu ñëpp tey pourtant yow ñoom ngay xeexal mais ñoom malgré que xam nañ yow da ngay xeex pour ñoom mais dafa bëri ay xol yu lëndëm ay xol yu tëjju ay xol yoo xam ne gars yi dañu iñaanante ba xam ne même commentaire sax dañ koy soxoree pour ñoom bu ñu commenté da ngay tekki pour ñoom bu ñu la commenté wala ñu la da ngay da ngay tekki pour ñoom bu ñu la xoolee da ngay tekki donc loolu dafa am ñu bëri ñu ñu nekk ci seen xol yi donc il faut nga am fibre patriotique bi gëm li ngay def def don de soi pour la patrie ni son ko di def nga def ko moom xaarul dara ci sénégalais yi dara xaaru ko ci sénégalais bu waree grève tàggu leen bu waree bàyyi du leen tàggu buy waaj dee sax mi ngi ci du leen tàggu parce que usman Ousmane Sonko dafa xam ni moom responsabilité patriotique am da koy matal buñ ko trahiree baax na buñ ko waree baax na buñ deful lu ñu wax baax na mais moom li mu wax ak ñoom da koy def chaque jour loolu laay wax sama frère ne ko defal te yàlla tax defal ngir bëgg bi nga bëgg sa askan defal ngir bëgg bi bëgg sa réew bul def pour xool ci ñoom parce que boo xoolee ci ñoom rek tey ji justice ba ngay gis ni France mi nga am cent mille sénégalais te ñi ñëw ci justice ñu trois ñi ñëw pour soutenir la ñu trois bu Macky Sall li ñëwee France ña fay génn ñu cinquante te pourtant France li mu am ci sénégalais New York amu ko ci sénégalais te France mu su bu ñuy manifester te taxawaalu nii dañuy mat cent mille booba Macky Sall ñëwee du ñu mat trente ba ñuy jàpp Californie matuñu trente Macky Sall bu mujjee mat ñu trente ñoom ñëppay liggéey di wëri lu ñu lekk wala lu ñu naani donc boo xoolee ci ñoom comme tey buñ koy atte tey tey justice lañ ko atte buñ ko atte tey mooy quatrième xaw cinquième fois buñ ko buñ ko atte justice devant le juge mais je lui ai que booy bu mu génnee dafa ma woo ma ne ko xoolal foofu noonu ñaata sénégalais ñoo fa mën a am ay 1 2 3 4 5 sénégalais ma ne ko voilà et pourtant France y a plus de euh, millions wala 1 million et quelques de sénégalais ñi France Paris rek lu fa nekk Sénégal kenn mooy li ma la doon wax démb bul xool nit yi bul xeex di bàyyi xel nit yi bul xool di xaar ci nit yi dara defal te yàlla tax bul ci alalu jàmbur taxaw ci devant le juge bul jël alalu jàmbur. taxaw devant le juge xeexal ngir sa nation pour taxaw devant le juge di wax ak fierté ne man damay xeexal sama dëkk damay xeexal sama nation loolu moo ma tax ma jàkkaarloog yow sàccuma alalu réew gaañuma fi citoyen français pàdduma fi citoyen français jël fi portable am Sénégal moom fi indi boo may attesté grâce à l'amour patriotique bi ma am ci Sénégal moo tax man ma taxaw fi moo tax ma ne ko doo ma gis sama soutien moom gisu sama soutien de xam nga partagé wu ma ko nee naa leen tey laa njëkk a wax ci waa ji muy laa njëkk a wax ci moom te tey lay jeexaat pour waxal leen ni Idrissa Niass buñ ko jàppee bu leen ma woo duma ci wax duma ci intervenir xam nga lu tax parce que sama combat sama combat la combat am la dafa war a combattre pour se libere dafa war a combattre pour libérer les miens dafa war a parce que liggéeyam la li muy def mooy wareefam donc bu ma ci kenn woo bu ma ci kenn woo du ma ci intervenir du ma ci wax musuma ko cee woo ci sama combat du ma bu leen ma woo ci tey jii bu ànd ak yéen di xeex ñu jàpp ko pour ma je trouve mal benn nit bu nekk France naan wooy Mawla wooteel jàpp nañ sa rakk bi mais yow lu foo téye wu. téye ñi ma jot a woo loolaa yow ne yéen foo leen nekk vous êtes en France avec lui muy xeex ñu jàpp ko jàpp ñu leen léegi man maa war a man maa war a intervenir du Canada en France dama war a intervenir quoi. Euh, ana lan mooy seen représentation foofu ci France bi lan mooy seen taxawaay daf leen seen taxawaay. j'ai pas besoin de d'intervenir de, de, du Canada jusqu'en France c'est son combat et que yéen yéen a yéen a ànd ci combat boobu donc taxaw leen ku nekk na taxaw taxaw waree fam rek c'est tout man loolu laa gëm du ma inter ak agir ci combat yu jàmbur c'est son combat te je l'ai préparé mentalement et psychologiquement jël naa ko bu muy taxawee premier vidéo bu mu def di wax ci ay affaire armée bi parce que daf na armée def na police bu mu ko gisee vidéo bi ci laa ko woo préparé ko mentalement ne ko est-ce pour affronter ça est-ce que tu pour taxawal sénégalais yi est-ce pour boot jinxóob xam luy boot jinxóob mu ne ma luy loolu grand ma ne ko ngay booti jinxóob ñu lay màtt ci ginnaaw jinxóob da nga boot pour rawale ko te lay màtt ci digg ginnaaw ngay booti jinxóob est-ce que pare nga pour booti junkoo mu ne ma waaw man est-ce que pare nga pour affronter est-ce que pare nga pour dee est-ce que pare nga pour gaañu est-ce que pare nga pour daj lu ne ci kaw suuf est-ce que pare nga pour def te yàlla rek tax mu ne ma waaw lép ma préparé ko ba mu pare ci laa ko sànnee ne ko demal boobu ba léegi chaque jour ma gis ko ci ay ñu jàpp ko dañ koy jàpp di jàpp di jàpp musuma ci intervenir musuma ci wax musuma ci partagé musuma gis ma leen sama frère bi musuma wax ne di sax musuma tudd sax tur comme am naa frère buy xeex musuma ko dégg parce que sas naa ko li ko war a sas li war a def xam na ko mi ngi ci moment boobu noonu ñi ngi ko jàpp pourtant man sama frère bu ma bokk ndey ak baay lañ jàpp mais man Amadou Ba doon soutenir parce que je fais fois à la justice française Amadou Ba laa soutenir parce que moo nekk ci loxoy dëmm yi man xamoon naa ni bu dee dëgg rek booy boobu day affronter tëdd na ci polisu France ba ba ba tas ndax combat bi taxaw na ci justice ba tas ndax combat bi mais man Amadou Ba laa soutenir Amadou Ba laa partagé Amadou Ba laa partagé ay postam Amadou Ba laa laa ci ci ponkal foofu noonu di leen menacé libéré leen doomu jàmbur yi pourtant woote wu ma France parce que man xam naa fi Amadou Ba nekk moo gën a dangereux foofu fu France te dañ ko fekk ci biir nit yi choisir ko moom ambassadeur bu Sénégal bu Macky moom moo dem xool idi ba mu neex ko ne ko ne policier kee moo moo ñëw yàq fii kee moo yàq ambassade woo sama frère bi gars yi ñëw jàpp ko yóbbu mais loolu je fu fous c'est son combat il est dans son combat man li may wax rek moom mooy ñi nekk France bu ñu jàppee Idrissa bu leen ma woo bu leen ma message il est dans son combat et il doit s'assumer c'est le risque du métier et c'est le prix à payer lu ma leen di wax rek moom mooy def leen ni moom taxawee leen taxawaay bi mu taxawee ndax ni mu bëggee projet bi ak don de soi pour la patrie boobu muy def ngeen def ko jaayante leen ni moom na leen ko jaral day liggéey de mais saa yu combat jotee mu ne ko fa ñukk du liggéey day liggéey de day liggéey yor njabootam foofu de waaw oui soxnaam mi ngi foofu mi njabootam ma ngi fi day liggéey de mais combat musul am mu dem liggéey komba musul am mu dem liggéey fu komba amee mu bàyyi liggéeyam affaire bi dañu koy jaral dañu koy jaral dañu koy jaral le peuple lenn kese lañ mën a wax ci ñoom mooy alhamdulilah jërëjëf dañ leen di ñaax rek ñu yokk mais peuple bi macha allah ay jàmbaar lañ fàq ndax loo fi wax kenn am na keneen koo xam ne mi mi mi mi ngi def lu lu macha allah donc peuple sénégalais bi c'est c'est un peuple à remercier à réconforter et yokku leen ñaax leen ñi yokk combativité ñi yokk don de soi ñi yokk bëgg seen patrie ñi yokk am fibre patriotique boobu noonu di leen di leen animer c'est le plus important nga gëm sa combat nekk ci mu jaral la lu ne loolu moom moo ci am solo li ci des yëpp ay détails la lu ñu jàppoon démb nañ ko jàpp buñ ko bàyyi mooy mooy on doit continuer ce combat on doit continuer ce combat ce combat là mooy Ousmane ko day dem ci élection yi par A ou par B bàyyiwuñu ko tey bàyyiwuñ ko ëllëg bu ma leen waxee loolu nag mooy bu leen tag naan da ngeen di xaar justice fi lu justice def baax na lu point bu yokk rek dañ ne cin lu mu xat xat xat dees na ko xorom dem xaj na ci donc suñu combat combat boo xam la combat de principe la mooy Ousmane Sonko day dem ci élection yi dara teewu ko te dara teewu ko da ciy dem léegi nag justice bi bu ñëwee ànd ak ñun ci loolu dañ koy sante yàlla mais ñun ñi suñu fulla ak sañu fayda ne xeex bii Ousmane Sonko day dem ci élection yi loolu luñ gëm la ni Macky Sall gëmee ni Ousmane Sonko du dem ci élection yi ñun noonu lañ gëmee ni te faalewul justice moom bëgg-bëggam la ko waxee bànneexu bakkanam la ko waxee ne Ousmane Sonko du dem ci élection yi ñun suñu bëgg-bëgg ak suñu bànneexu bakkan ak suñu bakkan lañ ci teg pour Ousmane Sonko dem ci élection yi léegi justice bi bu ñuy xeex fële ñoom nañ xeex bu ñu am bu ci amee ndam alhamdu buñu ci amul ndam ñun dañuy continuer ci luñ nekk donc loolu nañ ko nañ ko wax ñëpp ñu xam ko ñun ñu justice bi ñun ñoo déterminé wu ne Ousmane ko day dem ci élection yi loolu suñu détermination la suñu abnégation la suñu amour la ba pare lu ñu gëm la ne day dem ci élection yi léegi nag lu ñu justice bi jox alhamdulilah lu mu ñu jox dañ koy arraché il faut gars xam loolu incha allah par la volonté de jë incha allah et Dieu est avec nous voilà. Euh, donc comme nu ma ko waxee gars yi combativité résistance bëgg-bëgg amour bu ñu am ci suñu patri focus ci combat bi bu ñu dara divertir ñun on préfère euh, vivre dans la pauvreté dans la misère avec suñu dignité que di euh, euh, euh, mourir avec suñu dignité di moins que vivre ak ñàkk suñu dignité vivre dans mourir dans la pauvreté et dans la dignité que de vivre dans euh, euh, la trahison ou ay même même si wala vivre dans l'esclavage duñu nangu kenn moom ñu duñu nangu kenn te ñeewuñu tamit ñi nga xam dañoo dem jaay seen taat yi jaay seen ngor ndax alalu àdduna ñeewuñu leen léegi nag li ñuy wax mooy Macky Sall wax naa ko ko te moom laa koy tëjee na xam ni wallaay dañuy fayu man de xaaral ma def nii sax mu leer Macky barki Seydina Muhammad billahi dañuy fayu man wax naa ko waxaat ko ne naa xaw ma kan mooy jël réew mi yàlla na mujj ci loxoy Ousmane Sonko te xam naa ni incha allah bu soowee suñ borom ci kattanam ak mën-mën Ousmane Sonko la jox incha allah mais dinaa xamal ni Ousmane Sonko les six premier mois dina tàng ci yow de billaay meurtre dina bëri bal fetal dina tàkk de dinañ ko def ni Senzala dinañ ko def ni digg Brésil billaay wallaay dinañ ko def ni Amérique du Sud wallaay azim si premier mois yi moom. néew yi dinañ bari dinañ leen dinañ suuli ba tiit wallahi laasim dinañ fayu dinañ fayu dinañ fayu ba seen dernier retranchement barke alxuraan ba xoolal dinañ fayu dinañ fayu ba seen dernier retranchement du ñuy bàyyi kenn xawma luy mun a am nag policiers yi def saal procureur yi def saal gendarme yi ñuy yónni ñuy reyaate nervi yi di reyaate gars yi nii ñi saltakat yi Macky Sall di yónni ci télé kii ñuy reyaate loo leen mën def leen de loo leen mën def leen taal leen kër yi toj leen oto yi taal leen oto yi tiire leen nit yi rey loo leen mën def leen seen ku aaye woon sa moomee ku aaye woon sa moomeel yéen a ngi wone seen bopp de yéen a ngi jàpp nit yi di tëj di rey di tiire di taal di def leen neex mi ngi saf de mi ngi neex de gis ngeen nu mu safee di tëj di def leen neex da ngeen xam ni incha allah deux mille vingt quatre bu ñu jëlee pouvoir bi <laughs> <laughs> ku fi ñëw naan ay bàyyi leen fay yi sax ñu boole la ci illaahi bali dina tàkk kër yi dinañ tàkk dinañ fayu ba ngeen xam ne fayu nañ da ngeen xam ni ban dinañ fay ba mu saf-saf ku aaye woon sa moomeel dinañ taal seen kër yi dinañ leen tiire yi fetal dinañ leen daqe dinañ leen nokk ci kaso yi dinañ six mois yu tàng jër jër jër jër jër jër ñu lijjanti lépp ñuy war a rey ñu rey leen ñuy war a tiire bal ñu tiire leen ñuy war a ñu éliminer leen ñuy war a suul ñu suul leen ñu ñu war a disparaître ñu disparaître loo leen ñu ñu war a ku ci nekk ñu fay lu ñu mam mat sëkk ñu ñu war a tëj ñu tëj leen dëkk bi vide ba dee càkk band yi ñëpp ñiy dee ñi nekk ci kaso yi ñi disparaître ñu tëmbal leen ci géej gi mun nañ ko gënu leen ñu sadik de gënu leen ñu sadik de gënu leen ñu sadik dàqu leen ñu tiire gënu leen ñu mun a kil kilaa bi kilit incha allah bu soobee yàlla kon lu ngeen mën na ngeen ko def te moo tax ngeen di rey seen bopp ndax xam ngeen ni boo leen daanoo di dee te da ngeen di daanu boo leen daanoo di dee daanu dee la te di ngeen daanu te di ngeen dee loolu moom maa koy wax Macky Sall dinañ fayu ba ngeen xam di fayu nañ di ngeen fayu ba dinañ fayu ba ngeen naan ñin ñii ñan lañ amal affaire wallahi azim billahi wallahi wa taalaay donc euh, ñi leen sant di leen gërëm di leen bëggee bu wér voilà di leen wax ni stay focus rek lu fi des bëreetul lu tax Macky Sall di rey boppam nii ndax xam na ni wax waxuma la kaso de mais xam na ni bés buñ jëlee réew mi <laughs> ñoom ñi ngi kii rek ñun ñu toog ne ñi ngi ji di ñuy di ñuy joggi di ñuy gaañ ñi muñ rek gaay muñ leen rek muñ leen de jeex na de xaaruñu CPI de xaaruñu CPI de Macky Sall ci kaso Sénégal yi lañ koy tëj haute trahison ngeen naan ma CPI CPI ñun xaaruñu CPI li lijjantewuñu CPI yow yow ñun dëkk bu ñuy jël yéen ñu fi toog naan dañuy xaar CPI xaaruñu CPI Macky Sall haute trahison la def ci pétrole beeg gaz bi jël rakkam bu mu bokkal ndey ak baay jox ko suñu pétrole suñu gaz suñu ressource naturelle haute trahison lu ñu ko fi def du jeex du xaaj haute trahison lañ koy noqe ci kaso Sénégal yi duñ ko yóbbu ay beneen CPI yu lan balaa CPI di wax fekk yóbbu nañ ko Macky Sall bu ñuy def défilé défilé national bi le lendemain lañ koy dóor ci kaso bi haute trahison mu xaar Macky Sall foofu la croupir man nga nan ma ay CPI waaye ñun dañoo ñàkk fayda bay demi CPI ñu koy lijjanti Dakar seen maam fii ci Sénégal bu ngeen koy gisal seen bopp duñ ko yóbbu benn CPI fii kaso bi ngeen koy gis fii ñu dëgg seen maam tëj leen fa tak marquage à man moom man man moom sama gang ba mu fa sama gang ba kagul yi laay wàcce balaa maa ñëw kagul yi laay wàcce conteneur kagul conteneur kagul gant tout fetel yi dugal ci ci ci ci ci barigo yeeg dugal ko ci conteneur yi mu wàcc ay fetal yu bees tàq voilà ay AK 47 ay 9 millimètres ay RPG 7 ba mu kii wut sama gang bu saf sap ay ca voilà ñu gang gang boo xam ni oto oto bu yu saf sap ay ay ay pick-up américain ñu wër nday gaa yi wan ba woon di di di pointé wu seen biir comme fii gang yi ni ñuy def pointé wu seen koñ yi mbay jaxate génn xaw ma tun jaxate nga rokkos ko quarante coups quarante bu koñ bi yëpp daw dugg nga teg ko ci ayca bu koñu ñoom califourchon euh, pointé ñaf maamam trente coups continuer benn nuyu mun nga matal lépp benn nuyu nga ravager tout jaar yoonu gàm bi génn na gars yi tasaaroo leen point man maa ngi noonu loolu laa ci amoon lu ma def bu ma ñëwee fii ne leen gars yi def naa li ma war a def ñi leen sonaloon fii di leen saaga ay ndey di leen sosalaka di fenaka di def lu leen neex di leen di di leen rey ba pare di ko sosal ñoom ñëpp éliminé naa leen man mii la maa ko def maa la ko def ñoom ñëpp wax ji jeex ñu jàll ci leneen loolu moom maa ko déterminé wu gis nga nu ma woo ci combat bi noonu laa déterminé woo ci wàcce ñooñu noonu laa déterminé woo te ñu ma xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xam nañ ni toll na ma foofu ndax am na ñu ma ci woonaan ma noo booy bu leen wàccee gaañ leen gaañ leen ba ñu mujjee ci ay seize roulant xam na ñi ma xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xam li ma capable ak fu ma fu ma toll ci sama combat bii ñu ci ñu ñooñu woo nañ ma ne ma sawaay mola bu leen rey gaañ leen tiire leen ay ay bal ci tànk ay bal yi nga xam ne nga xam si seize roulante la ñuy mujjee wala ay bal fetal yu yuy fëq ay ŋaam mais incha allah léegi rek bu soobee yàlla ay Jaram Bandiakeeg ay Moustapha Diop ministre incha allah yàlla nañ fi fekkee 2024 bu soobee yàlla yàlla bu ci kenn dee ci ñoom soobee yàlla kon nag un homme averti en vaut deux fàtte wuñu leen de fàtte wuñu leen de ñooñu mooy gën a tuuti ci ñi may wax ñi ngi ñëw ci kanam li ci kanam raw li bët yàlla ñu fi yàlla bàyyi ba boobu kon na gars yi la combat continue stay focus Sonko aux élections présidentielles son Sonko aux élections non ñoom ñoom Mame Mbaye Niang ñoom ci kaso bi lañ jëm yàgg na man bandi salte yi salte yi salte ñu salte yi salte laa la ñoom Mame ñaa ñoom ñu ñoom ci kaso bi lañ jëm ñooñu ñooñu perpétuité la sa ñooñu perpétuité la nangu alal gépp gis nga Gabon nu ñu def ñooñu la ñuy toppee ñoom Mame Mbaye Niang ñoom ministres yi ñoom Amadou Ba yi yeeg ñooñu rëbb dëmm la perpétuité vider leen nangu seen kër yi nangu seen terrain yi vider leen ba ñu torox tot dañuy nangu ba nangu seen yére yi xanaa looloo gën a dee nangu seen yëre yi nangu seen dàll yi nangu seen yére jabar yi nangu seen yére dàll yi def ko ci ay saak saraxe ko maye ko futti leen ba set wecc dugal leen ci kaso yi perpétuité no tëj leen foofu à vie voilà fukki dërëm duñ ko am nangu seen oto yeeg lépp lu ñu sàccoon pour pour askan wi jël ko jaay ko vente aux enchères def ko ci trésor public bi waaw duñu wax lépp projet la projet kenn mënul wax lépp yàlla na yàlla yàlla matal lépp rek lépp lu ñuy ñaan ni yàlla na ko suñu borom matal yàlla ñu suñu borom may élection yi rek ñu jël ko incha allah bu soobee yàlla lu ci des projet la loolu bind nañ lépp lépp lañ bind bu soobee te dinañ ko appliquer noonu ñu leen ko waxee nag incha allah mënuñu ko fi wax pour l'instant peace and love venam oto leen oto yi leen nit yi rey loolu leen def leen seen ku aaye woon sa ku aaye woon sa yéen a ngi wane seen bopp de yéen a ngi jàpp nit yi di tëj di rey di tiire di taal di def leen neex mi ngi saf de mi ngi neex de gis ngeen nu mu safee di tëj di def leen neex da ngeen xam ni incha allah deux mille vingt quatre bu ñu jëlee pouvoir bi <laughs> ku fi ñëw naan ay bàyyi leen fay yi sax ñu boole la ci. illaahi bali dina tàkk kër yi dinañ tàkk dinañ fayu ba ngeen xam ne fayu nañ da xam ni ban dinañ fayu ba mu saf saf ku aaye woon sa moomeel dinañ taal seen kër yi dinañ leen tiire tiiree fetal dinañ leen daqe. yeah asalaamaaleykum jaajëf sama gaay ñu ngi ziar maagal ndamoo tiitaroo liñ bëggee bu wér yéen a ngi focus ah yesaay jëmmal seen bopp rek c'est le plus important boo nekkee ci kaw suuf foog nga jëmmal sa bopp même buñ la bëggee suul faut refuser quoi ci loo nekk rek lu ci ci loo nekk rek fexeel ñu ràññee la ci waaw ak lu mën a doon nag lu mën a doon waaw loolu mooy taxawaayu missionnaire ñu ngi leen di bégg nag di leen ziar ñëwaat encore di waxtaan ak yéen bon euh, Amadou Ba de de retour ñibbisi na. ak tamit Seynabou aussi ñibbisi na c'est normal <laughs> mooy li ma leen doon wax démb ñoom <laughs> bu ma leen jotee kenn ci chef yi jot naa ko démb téléphone euh, te waxoon naa ko ko ne leen ñi ngeen téye noonu dañuy fees ci seen loxo rek waaye di leen sànni parce que ab safara ab safara bu tàng la ci seen loxo te ñoom xam nañ ni bu ñu jafandoo ci benn mbir mbir moomu noonu amuñu lu luñ ko mën a taqalee dëgg dëgg dëgg ba dugal ko ci kaso yi dañ koy mujjee bàyyi ak contrôle judiciaire bu leen fàtte ne loolu lañ defoon El Malick ñu jëlee audio jàmbur yi féetale ko El Malick affaire bi cóol mu doon benn safara ci seen loxo tàng jër bu ñu demee demee demee ba jaxle force force forcé ba mënul ne dañ ko mujjee delloo ak benn contrôle judiciaire donc euh, voilà euh, bettu ma nag bettu ma parce que démb rek maa ngi koy wax benn ponkal ci ñoom ne leen <laughs> xam ngeen bañ bañ a dugg bu tàng lokk ko dafay metti waaw bañ a dugg bu tàng ñu mun a maa ma ne ko lokk ko day metti de waaw parce que Amadou Ba du docteur du médecin du pénitencier du gendarme ñu gis ab dossier boo xam ne tamponné wuñ ci confidentiel tamponné wuñ ci secret dossier ba génn ci mbedd mi ngeen bu ko ñëw taxal <laughs> Amadou Ba xanaa moom mooy ñaaw baay xanaa Amadou Ba mooy ñaaw baay Amadou Ba partagé comme tout le monde Juan Branco jël sànni Amadou Ba partagé Mbaye Ndiaye partagé Khady Diop partagé bu partagé nga xool ñeen ñoo xam ni xaw nañoo laal ay parti parce que bu jëkkëram jàmbaar la fàq tëdd ñëpp ràññee ci combat bi citoyen nga ne xaaral ma jàpp Seynabou Seynabou nga xam ne daa partagé rek effacé te dossier boobu ku mu neex partagé c' est pas confidentiel ah c' est pas secret si c' est estampillé confidentiel na ngeen xam dara dossier buñ ko bu buñ buggee mu confidentiel dañ ci estampillé confidentiel maanaam dañ ci tamponné confidentiel si c' est secret dañ ci tamponné secret donc ñoom ñuy xool ñaar ñi nga xam ni daal bëgg leen def ay kumba amul ndey parce que ñi ngi teewal di taxawal nekk ci dëgg di xeex muy ku mel ne Amadou Ba wala Seynabou bi nga xam ne jëkkëram ñëpp ràññee nañ ko ci combat bi macha allah nit ku pertinent ñaari nit daal yoo xam ni kenn ki mënuñu jàpp jëkkër ji parce qu'il est pertinent mënuñu ko jàpp jëkkër ji daa voyagé sax jamono ji ñu xool ne xaaral jéem-jéem jotu la damay xool ku la gën a jege ma jaare fa ba yàqal la donc mu ne xaaree ma jàpp ah, Seynabou bi nga xam ni daa partagé rek effacé ak Amadou Ba li <laughs> ma leen wax moo nekk <laughs> tey si suba à 10 heures nag convoqué nañ ñi nga xam ni ñoom ñoom lañ jàpp ni moo tax tey si suba laa laa amoon certitude ni dañ leen di bàyyi ci 10 heures ci suba parce que ci suba boos yooyu nga xam ni kenn ci ñoom ñu jàppal ñoom Amadou Ba waxuma nag Abdou Karim Diop parce que Abdou Karim Diop moo jàppalu Amadou Ba Abdou Karim Diop moo jàppalu Amadou Ba gis ngeen ko tey ci journaux yi ñu lire journaux Sénégal yi gis ngeen ko bind nañ ko c'est le procureur moom moo commandé pour ñu jàpp Amadou Ba man loolu xam naa ko bu yàgg parce que damay suivre dossier état bi dama leen jege bi ñu jàppee Amadou Ba Sénégal yëpp di demande posé question ci la génn def live ne leen Amadou Ba dossier bi nga xam ni mooy bu Ousmane Sonko médical bi moo tax ñu jàpp ko. je pense que après ngeen ko commencé le lendemain ngeen ko suivre mais man nag damay dama nekk ci système bi lu tax ma ne dama nekk ci système moom mooy nit yi nga xam ne ñoo nekk ci biir système bi am ay pastéfiens am ay patriotes. am ay combattant am ñu bëgg seen réew ñooñu dañoo connecté ak ñun kenn yi am nañu connecté ak Pape Alé am nañu connecté ak man am nañu connecté ak Branco ay nit la ñoo xam ne ñu ngi ci biir administration bi mais ñoom ay pacifiens lañ ñii ay patriotes lañ ñii dañu bëgg seen réew ñii liñ leen di teg sax neexu leen ñooñu ñun dañuy am connexion ak ñoom lépp lu am ci réew mi ak li ñuy xalaat ak li ñuy def dañuy ñëw waa Mola. waaye gaa yaa ngi jéem mbir de waaye lu xew foofu ñu commencé laa tegal. ñi ngi def lii ñi ngi def lii ñi ngi waajal lii ñi ngi def lii donc noonu nga koy xamee loolu moo tax ngay nekk à jour wala nga ngay jiitu ñi nga xam ni ñoom dañuy tourné gis dara mais xamuñu nan lu ko waral fekk yow renseigné nañ la ni lii moo waral lii loolu moo tax man il m'avait déjà parlé de Amadou Ba buñ ko jàppee rek nee nañ ma ci affaire dossier médical bi ma génn defal leen laaj ne leen dossier médical mais loolu mënul ne moo tax ma défendre Amadou Ba ne Amadou Ba du médecin docteur du infirmier xam nga du garde pénitentiaire donc Amadou Ba n'a absolument rien à voir boo leen gisee nag dossiers yi di joge ci kaaw bi di ñëw ci yéen lenn kese la parce que dossiers yi souvent gars yi ñun ñi lañ koy jox xam nga la ñoom ñu dara mënuñu ñu jàpp mënuñu ñu tëj ñu amuñu pouvoir boobu pouvoir bu ñu amul ci Juan Branco amuñu ko ci moo Mollah Morgun amuñu ko ci peut-être waaw amuñu ko ci Ousmane Tounkara wala keneen ak keneen donc dossier yooyu boo ko joxee benn bu nekk Sénégal ñoom dañ koy jàpp toroxal ko tëj ko donc dossier yooyu gars yi nga xam ne ñoo koy joxe i préfèrent jox ko ñu nekk ci kaaw bi tu ñu fuite ko jox ñu nekk ci kaaw bi pour ñu nekk ci kaaw bi génne ko ñu nga xasee ba génne rek tey foofu mooy source bi bu boobaa ñoom duñu leen mën a dara parce que dañ naan Juan Branco ko génnee Mollah moo ko génnee loolu moo gën benn Pape Alé Niang moo ko génne te bu ko Pape Alé Niang génnoon te jii mi ngi ci kase bi te pourtant Pape Alé Niang am na ko de am na ko mais mënu ko génne parce que bu ko génnoon tey jii ñu ñu ñu takkal ko xam nga nit bu lay wër moom da ngay moytu jox ko sa bopp da ngay moytu ay sir ay mbaam lañ da ngay moytu jaay ko sa bopp wala da ngay moytu saraxe ko sa bopp voilà du ragal mais doo ko def parce que te tekkiwul lu war a tax nga koy sarax sa bopp vous voyez donc tey si 10 heures nag bon ma jot information comme quoi que secrétariat bu Babacar euh, euh, euh, kii Diagne kii Abdoulaye Diagne je sais pas mooy diriger moom mooy ki nga xam ne moo remplacer Jean Bocandé secrétariat am yëpp dañoo wuy ji dig tey mooy gendarme pénitentiaire yi nga xam ni xam nga directeur pénitentiaire bi Jean Bocandé dañ ko remplacer Babacar Diagne foog naa lu tudd xaw ma bu Boubacar Diagne quelque chose comme ça kooku nag secrétaire am yi ñi nga xam ñooy liggéey foofu yëpp ñëpp wuy ji nañ tey dig tey suba parce que nee nañ foofu la génne parce que ñoo ñoo ko tàppe xam nga loolu Euh, directeur pénitentiaire moo ko bind di ko di ko envoyé ministre de l' intérieur n' est ce pas ci situation wu Ousmane Sonko n' est ce pas letre boobu noonu ñan ñoo ko tàppe xam nga Ablaye Diagne xaw ma Babacar Diagne du ko tappewu ko donc ay secrétaire am ñoo ko tàppe ñooñ ay gendarme lañ ay gendarme parce que euh, euh, direction pénitence pénitentiaire corps pénitentiaire bi direct direction bi ay gendarme lañ Jean Bocandé gendarme la donc ki koy remplacé tamit gendarme la léegi nag waaw colonel Ablaye jaañ exactement léegi colonel Ablaye Diagne euh, secrétariat am ñoom ñëpp tey dañ leen a dugal ci oto paqueté leen ay gendarme lañ yóbbu leen dig moo tax tey dig amul benn audition ñoom rek ñoo fa newoon dóor audition yi sànq la ñuy doog a ñibbi sànq la ñuy doog a pare donc loolu moo tax euh, ponkal moomu nag nga xam wax naa moom démb ne ma sa yi danañ leen bàyyi waroon na ma ne sa gars yi leen bàyyi mais dama doon xaar parce que ñoom ay saay-saay lañ sa gars yi nañ leen bàyyi parce que léegi ñoom xam nañ ni nee nañ affaire bi fuite bi si secretaria wu ki nga xam ne mooy Ablaye Diagne colonel Ablaye Diagne rek la mun a jóge parce que moom mooy directeur pénitentiaire bi te moom moo bindul lettre bi kon ñan la koy ñu ko ñu ko tàppe secrétariat am ñoo ko tàppe soit secrétaire yi soit nit boo xam ni mi ngi ci biir secrétariat bi parce que ordinateur yi <laughs> ma nga fa ak nit yi bëri nañ ñu ko ñu mën a laal ordinateur beeg ñu mën a jël feuille bi jox kii ki jox ke donc léegi ñu nga ña ngay jàppante seen biir loolu fu nekk nii nag euh, jàpp leen ni ña ngay seen biir fu nekk nii ñoom woowante nañ tey dikk foofu euh, interrogation yi tey fa la xewee tey suba bàyyi nañ suñuy nit ñëpp dem nañ donc ñoom fu nekk nii ña ngay jiiñante dëmm jamono ji tey si tout la journée dik dafa tàng jër ña ngay jiinante dëmm kii naan man la ñoom léegi nag entre gendarme ak policier parce que dik ay policier lañ ñooy interroger ay gendarme te tam bu leen xam ngeen bu baax ne gendarme yi ñoom dañoo xeeb policier yi gendarme dañoo xeeb policier yi ñoom pour ñoom ñoo gën a tàng policier yi ñoo gën a ñoo nekk corps bu gën a baax bu policier yi donc ñoom gendarme yi déjà ñoom nanguwuñu policier di leen téye naan dañ leen di enquête déjà loolu daf leen metti loolu donc am na mur mur ci ci côté boobu noonu coow li mi commencé riir parce que ñoom dañuy saaga policiers yi ñoom gendarme yi di xamal comme quoi que gendarme war mun a suufee ba policier di ko jàpp ak di ko enquête ak benn bennal di ko gololoo donc loolu moo xew tey si dik mooy maanaam ñi nga xam ñooy secrétariat ñoo géré secrétariat wu euh, colonel Ablaye Diagne bi remplacé Jean Bocandé ñëpp yóbbu nañ leen tey dikk doon leen interroger pour xool fan la dossier yooyu fuité vous loolu moom mooy euh, rapport bi nga xam ni Ablaye Diagne moo ko bind yónnee ko euh, ki nga xam ni moom mooy ministère de de la justice ak euh, ministère de l' intérieur ñëw ñu wax leen ne ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko sonn na ci seen loxo te bëgguñu mu dee ci seen loxo ñu ngi dégager seen i responsabilité donc affaire ba far affaire ba génn mais nag c' est pas un dossier secret léegi nag vraiment waxoon naa leen ko ne leen. ne da ngeen di lijjanti loolu di jàpp ay Amadou Ba moom taxul ngeen jàpp ku ku fuiteel dossier parce que amado Ba nekkul ci secrétariat ba bu aussi nekkul ci secrétariat euh, pénitentiaire ba du gendarme du policier donc jàpp ñooñu moom taxul ngeen <laughs> xam ñan la <laughs> yéen seen bopp xam ngeen ni yéen seen biir la dossier bu génn bu leen wëri ñeneen ñu nekk ci mbedd yi ñooñu ñëpp ay ay ay lañ jàpp leen yéen ñii seen biir dossier bu génn pale ku nekk pale ko def bu si moo Morgun jotee Mollah Morgun jotee kay nit bu nekk pale moo koy jox wala moo ko jox keneen keneen jox ko keneen tu vois te ñoom gis naa ni lu génn dañuy tiit nag dañuy tiit loolu moom côté boobu gis naa ko ci ñoom bu dossier génnee rek dañuy nekk di rey seen bopp pour xam kan moo ko génne kan moo ko fuite kan moo ko fuite kan moo ko fuite loolu moom da leen di teree nalaw xaw ma lu tax nag ay tàppet lañ ñuy def ay defkat yu tàppet lañ voilà di leen xamal ni donc Amadou Ba est revenu vers nous macha allah euh, comme ñu doon wax naan euh, bo seen xel rek seen xel lañ doon waxee aussi que Amadou Ba dossier bi dañoo bañ mu dem xaw ma xaw ma fan Abuja xaw ma et cetera et cetera xam nga man côté boobu euh, tey regardez-moi bien tey CEDEAO cour bi ñu ngi ne woon di def seen i affaire man je partage pas je du ma ci débat xam dox parce que man dama gëm ni ay avocat Ousmane Sonko lu leen war ñu ngi koy def man du ma avocat man j'en ai absolument rien à foutre du travail des avocats de Ousmane Sonko leur leur travail ñoom ñu ngi koy def man la peuple sénégalais dama am sama liggéeyu bopp bu ma war a def man dama jomb bàyyi sama liggéey di dem di jafandu ci liggéey jàmbur yi man loolu du yëfu gor moo tax man je partage rien de de combat Euh, euh, dire euh, comment dirais du combat judiciaire entre l'État et les avocats de Ousmane Sonko sa c'est leur combat à eux Ousmane Sonko a son combat mu ngi mu ngi grève de la faim di reyante nekk entre la vie et la mort et di résister donc le peuple aussi doit résister dans de son côté te bàyyi di di abb combat jàmbur yi te bàyyi di lépp combat jàmbur yi te bàyyi di sàkketoo combat jàmbur yi di jubiler ci ay waaw Sénat nangam ak nangam non nous le peuple dañoo war a taxaw jëmmal suñu bopp nekk ci suñu combat combat boo xam ne fulla ak fayda ba Macky Sall du ñu yeb ba ku ko neex mu ne dompat yanu jël yóbbu loolu c'est une déception pour un peuple boo xam ni nee nañ peuple bu résistant lañ loolu loolu dafa ruslu kër goo xam ni saa yu bëy euh, bukki ba xiifee yanu benn bëy dem yóbbu ne da koy lekk ñu ne fa di jox xam nga benn instant day dem ba ñu dañuy mel ni ay ay géttu bëy buur bu soxlaa bu xiifee ne dem leen jëlal ma foofu béy bu rëy wala béy bu gën a rëy làmmiñ ngeen ne ma ko dompat indi misuweel ma ko ñu ñëw ñoom kii nga xam ne moom mooy euh, procureur wala poli wala police yi police yi ñoom sàngare ñëw jël kan kenn ci ñun yan yóbbu ñun xam nga lan la def mbee comme géttu bëy mais mais mais ñu lan la ñu la jël lañ fi benn benn benn bëy benn bëy bu duuf lañ fi yanu bëy bu bëy bu doon nampal euh, bëy yeneen bëy ndaw yi nga xam ne seen nday daa bëy bu doon nangam ak nangam ñun man lool laa gis ci ñun man damay man damay xool suñu bopp ñun peuple bi loolu lañ may saf loolu keese laa gis ci ñoom sama kanam loolu lañ may jox comme daal géttu bëy goo xam ni buur day toog fee ne yanu leen ma benn bëy ñi yanu benn bëy bu duuf benn bëy bu mun a nampalaate boo xam dana nampal askan yi di leen dundal di leen jox meewam di jaay di jaay boppam di leen jox meewam et cetera di di tayle boppam di leen jox meewam buur na ko nanget yóbbu bu komis wi léegi nag bëy ya au lieu ñu jog mbëkki dem génn duñ ko def fa la ñuy toog di mbee mbee mbee mbee ba buur boobu resal toogaat yenuwaat keneen yóbbu donc peuple bi dafa am liggéeyam dafa war a bàyyi liggéeyi jàmbur yi muy sàkkitoo peuple day am fulla amul benn peuple bu mun a bu bëgg a libéré jël addunam yëpp ak doolem bu ko wéer ci ay ay avocat yi xeex fële ay avocat euh, Ousmane Sonko ak avocat euh, euh, gouvernement bi wala ay action judiciaire le peuple a une force force bu doy waar il faut ngeen xam ko ñii xam nañ ko ces gens là qui sont xam nañ seen force ces gens là xam nañ seen force koo ci laal di gis ko koo ci laal doomu sanguin boo ci laal morom ja gis ko il faut ñun ñu am suñu fulla ak suñuy fayda tey jii bu fekkoon ni justice kese moom lañuy topp kon lii du ñu ci fekk kon kay Ousmane Sonko mun na bàyyi grève de la faim bi parce que moom am na moom moom moom mooy fay avocat yi wala moom moo signé ak avocat yi xanaa bu Ousmane Sonko demee ba am ay avocat ñooñu dem justice mu continuer di grève de la faim di xeex mooy wane ni sawaay moom xam na combat am ni moom dafa am combat boppam bu wuteeg ay avocat am dina def nag lu conforme au lois et règlements d'un pays moom dina wut ay avocat am dinañ ko dem défendre yi c'est c'est mooy mooy lu gën a yomb wala lu gën a normal c'est le plus normal des des des choses mu def ko parce que justice dafa am ci réew mi comme maanaam justice maanaam bu ñu nee justice am na mooy avocat am na ay juge am na am na ay justice am na ay cours et tribunaux loolu la ñu woowee justice am na ci réew mais wax ñu la justice dans le vrai sens du terme. donc Ousmane Sonko bu fekkoon ni moom comme ñun ni ñu ko bëgg a doxalee la doxalee bu muy wutee demee ba wut am benn dix à quinze avocats am mënoon a tëdd ci laalu hôpital yi di di nalaw wala mu dem ci kaso ba toog fa <laughs> ne je am naa ay juge donc le peuple dañoo war a xam seen xeex peuple day xam xeexam peuple day xeex peuple day xeex ku leen ko wax mooy dëgg ku waxul mooy dëgg peuple day xeex peuple day xeex peuple bu musa a wu ci àdduna day xeex loolu yàlla moo ko nattoo peuple amul peuple bu am jàmmam te xeex ko peuple yëpp dañoo am seen jàmm dañ koo xeex loolu yàlla moo ko def loolu boo ko xoolee ci misaal te boo ko xoolee ci secret suñu borom yi da ngay gis ni yàlla musul libérer peuple musul libérer peuple peuple day xeex peuple day xeex da ngay gis benn peuple bu bon yàlla wàcce fa ab yonent waaye sa waay yonent bi yonent boo fu wàcc noonu amul dara ci ay nalaw amul dara ci ay lamentation da ngay gis yonent bi yàlla moo ko yónni ci peuple pourtant yàlla am na pouvoir yar peuple boobu sax mu yónnee leen yonent am na pouvoir bi pourtant mais dafay yónnee yonent boobu noonu hmm, pour mu dem xare ji reyanteeg peuple boobu pour defar leen loolu moo tax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem ba def jihaad lu ñu naan jihaad lu waral jihaad boobu mooy pour pourtant yàlla amoon na pouvoir bi soxlawu leen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di xeex ay nitam di dee pour mu mun a changer peuple am mais parce que suñu borom moo ko xamal ni peuple doo ko changer mukk du ñu am lu ñu bëgg mukk tant que xeexuñu ko. prophète boobu di daj lu ne di rey boppam lu ne pour peuple boobu changé mu mu ay guerre di fa am ay tremblement de terre ay tsunami ay suuf suñu dëpp lu ne yàlla di ko teg ci ay peuple ndax yenentu boobu bu mu ñëwee lu ne daj na ko ci kaw suuf donc ñun amuñu yenentu ba mun a ñëw ci ñun libéré ñu te ñun ñu xeex loolu amut loolu moom il faut ñu Sonko bu doon yenentu sax du réussir combat am bu dee peuple bi topp ñu ko ci combat bi maanaam peuple new ñu di résister di continuer di résister di résister di continuer di résister di résister di résister di résister ba am ndam loolu yàlla moom moo ko nattoo peuple yëpp muy peuple Israël ak peuple Palestine ak peuple Malek Burkina ak Guinée ak Côte d'Ivoire ak Malek euh, euh, euh, Burkina ak Niger ak Algérie ak Tunisie ak Égypte ak lépp peuple boo fi gis dañuy xeex pour yàlla may leen ndam xeex bi nag du benn fan du ñaari fan du ñetti fan du benn weer du ñaari weer du ñetti weer ndax ki ñu amal affaire ki ñu amal affaire ki ñu amal affaire kooku moom it dafa résistant ah. ak loo ko mën a waxal bandi la mais bandi bu déterminé wu la bandi la mais bandi boo xam ni bu la nappee nga dee bandi la mais bandi boo xam ni lâche pas da nga koy rey mbaamu rey la dina utiliser tous les moyens nécessaires pour xeex yow donc ko ku noonu munoo di di di ko songe à demi mesure wala di ko song di bàyyi parce que yéen xam ngeen ni Macky Sall li ngeen di xaar chaque jour yaakaar bi day tas xam nga lan moo tax yaakaar bi di tas écoutez bien lu tax ma la yaakaar bi day tas souvent la caisse totale des di ans fu mu nekk nii saaba si lañ joxoon yaakaar ba saaba si fay ñëpp di xaar Ziguinchor waay taxaw tambour bata suba ba guddi saaba si atte ngeen jubile ñëpp gars yi taxaw kontaan moment boobu foog ni fiche yi day am Macky Sall ne maa lànk joxe moo fiche yi tegu yemuñu ci de mu jël inspection ba yónnee saaba si ne yow xaaral ñëw rëkk sa ndigg ñu jël loolu dem jox ko tey jii ministre de la justice Aïssata Tall Sall mu war a xool ba xam lan lañ war a def saaba si ñu ñu ñu jóge fa léegi jibile boobu noonu yaakaar ba tas justice ba Macky Sall day ci toog ci kawam day ba toog ci kawam la Macky Sall def donc foofu peuple bi defuñu ba léegi réaction te foofu mooy première réaction bu peuple bi waroon def mooy ne décision justice bi da nga koy respecté nga commencé gis ni dëgg bi envahir nañ mbedd mi envahir nañ rue yi envahir nañ pari partout ne nag da ngay respecter décision de justice boobu noonu ñun en tant que Séné ay sànq sénégalais ngeen ñu wax ne suñu dëkk am na justice benn juge di di di di di rendre justice ngeen lank ne justice boobu du am dañ koy jaayanteeg yow. loolu mooy war mu ne première réaction léegi gars yi bàyyi loolu mu seey Macky Sall moom mi ngi continuer ba léegi di jàpp ay nit di jàpp di jàpp ko di jàpp di xeex di di di di di di bordel di tëj ay université di wax waxi dof <laughs> tu vois euh, ak université boo xam ne bu mu tëjoo ba léegi dëkk boo xam ne dafa am politique de développement euh, structurel wala de développement euh, infrastructurel kon heure bi defar na université mais mu bàyyi noonu université parce que nu mu yàqoo noonu noonu la ko bàyyi pour mun a def alibi comme quoi université baaxul bu kenn jàngi si parce que day bañ étudiants yi dajaloo day jàpp ne bu ñu dajaloo rek mun na déclencher foofu fibre patriotique bi mu déclencher foofu ay émeute nangam ak nangam mu ne non étudiants yi du ma fexe nu ñu dajaloo mu sacrifier mu bugg a sacrifier seen i études ndax ñoom ñëpp seen doom yi ñu ngi ci kaw bi di jàng ñu ngi fii di jàng ak Amérique yoo nekk si leen di yónnee ay des millions donc ñu toog bu ñu toogee léegi ñu jël affaire bi yóbbu ci Sénat Sénat validé na Sénat parce que Sénat déjà ñoom ay cours de justice lañ ay juge fa nekk tandis que DGE foofu bureau kese la bureau bu bokk ci ministère ministère euh, de l'intérieur maintenant Sénat wax na on va voir ba xam Macky Sall respecte la justice encore une deuxième fois chance amaat na ci moom mu war ko mu war a respecter justice bi on va voir si day respecte justice bi ou non loolu mooy deuxième léegi bu ko respecté wul aussi lan moo war a doon réaction peuple bi man mënu ma ko juger parce que peuple bi dañoo bipolaire c'est un peuple bipolaire très très très bipolaire c'est un peuple boo xam ne tey mun nañ tàng nalaw mun nañ tàng lundi mardi nalaw jeudi vendredi samedi huit mois tàngaat benn ñaari fan nalawaat quarante jours c'est un peuple très boobu boo xam nit mënu ko natt nit mënul taxaw xanaa nga am fit rek mais peuple bi moom <laughs> seen yàlla moo ko def seen jinne seen jinne ji daal bëgg na nalaw bëgg na lu nooy bëgg na lu noppalu waaw léegi nag de jinne joo xam ne tam bëgguñu nañu koy woyal jàmbaar nga toogal noppalu def nga lépp peuple loolu na boo leen guddee xam ngeen peuple dëgg-dëgg jinne peuple bi dafa bëgg way dafa bëgg koo woy moo tax ñoom dañuy gën a déglu ñi leen di way seen baaxu waaw jàmbaar ngeen yéen a ko xeex yéen a xare yéen mais lan lan la ñuy xeex lan lañuy ñu xare exactement lan la ñuy xeex xeex nañ mais lan lañuy ñuy xeex xeex kay ndam la xeex ndam la ñuy wër du xeex kese ku ñuy xeex mooy Ousmane Sonko bañ a dem ci kaso dem na ci kaso yi Ousmane Sonko dem ci élection yi ba léegi mënugul jot ay fiisam donc lan c'est pas parce que dañuy xeex nit day xeex pour am ndam nit xeexul pour xeex kese déedéet nit xeexul pour xeex nit day xeex pour am ndam kenn mënu wax ne yow xeex nga yow xeex nga yow da ngay xeex pour am ndam mooy xeex bi donc ndam xeex bi lan la woon bu Ousmane Sonko dem ci kaso bi bu doon xeex bi tey dañ naan dañ koy dañ koy vali euh, dañ koy évaluer xeex boobu noonu malgré nit yi dee nañ ci gaañu nañ ci mais Macky Sall la ko gagné parce que fin bi fin bi dem na ci kaso bi ba léegi mi ci kaso bi bu fekkee xeex nañ tam xeex xeex xeex xeex xeex c'est nañ ñëpp gis nañ xeex nañ xeex nañ deuxième bi moom mooy lan suñ ko dem ci élection yi xeex nañ xeex ba suñ jonn yàlla tey Sonko ñoom ba léegi turam neewul ci liste électorale yi rocc nañ ko donc xeex bi neex na baax na mais aussi xeex bu ndam moo tax ñuy xeex bu fekkoon ne dañ naan match bi Sénégal joué nañ ko mais gagné nañ ko joué nañ ko gagné nañ ko waaye tey match bi nice non Sénégal joué nañ de ah nu match bi résultat bi waaye door nañ ko 2-0 waaye Sénégal xaar ne oh tey dañu match bi nice match bi nice deuxième match bi non Sénégal doy tey moom woo oh, gardien bi joué na mooy homme du match Sadio Mané mooy meilleur joueur du match ñu ne ñaata lañuy ñaata lañ dóor ñu ne dóor nañ ko 4-0 <laughs> dafa mel ni ñun peuple bi dafa dem ba nga xam ni dañ leen di tagg ci ay mbir c'est xeex nañ mais résultat final bi mooy moo mooy njëriñu xeex donc ñun il faut ñun ñuy rendre justice si suñu bopp maanaam bu justice bu justice attee Sall di ko salfaañee di ko piétiner peuple bi c'est au peuple sénégalais ñu jóg xeex ko libéré wu ne da ngay respecter ne Macky Sall da ngay respecter décision de justice bi. parce que décision de justice justice bi sa baay moomu ko sa yaay moomu ko sa nijaay moomu ko tu vois euh, donc loolu moom mooy le combat. donc nañu gën a farlu ci suñu combat gën a nekk ci suñu combat gën a jublu ci suñu combat bañ ay diversion wala bañ jël suñu combat di ko tayle di ko tayle ay ñeneen mel na ay notaire kon lu ñu am combat dem wut ne notarié ko jël suñu combat notarié ko jox ko keneen wala di ci xaar justice ak yooyu Sénat bi ni mu àttee malgré que Sénat moom bu waxee ne dellool yëfu ja dellool Ousmane Sonko ay parrainage am jox ko parrainage mu dem wuti ay parrainage am DGE bi nga xam ne du justice lànk ne joxuma ko Sénat am na droit dem jël parrainage yi loqati ko ñëw jox ko Ousmane Sonko mais fu nekk nii même malgré que Sénat wax na <laughs> mais amul kenn koy yee Sénégal ne ko est-ce que Macky Sall dina ko respecté mu ne waaw ku ko def rek da dëgër fit <laughs> déggu leen ma dama ne malgré que Sénat nee na Ousmane Sonko nañ ko delloo parrainage am ay pare fiche parrainage am mu wuti ay parrainage am mais ñëpp Sénégal 17 million de Sénégalais koo ci fëgg ne ko est-ce que Macky Sall dina ko jox wala du jox Ousmane Sonko munoo ne waaw munoo ne déedéet parce que loolu Macky Sall moo dem ba liggéey loolu ci esprit sénégalais yi fii maay bàyyi lépp maay bàyyi justice maay bàyyi pouvoir yëpp spirituel ak temporel ak judiciaire rek man maay xool sama tuun gi tàng na tey wala sedd na bu yeewoo ne laa leen Sénégal ci humeur u Macky Sall la ñuy doxee bu ñu yeewoo Macky Sall ah, maanaam Faye dóoroo ko café café gi saful suukar mu ne génn ñuusal leen ma kii ñaqal leen ma kii tegal leen ma kii indil leen ma kii ma maa donc moom noonu lay doxee bu yeewoo ma euh, añ añ bi nag madame Faye dóoroo ko ceeb boo xam ne dafa bëri kaani mu ne euh, tey tey ma ñàpp seen maam génn ay kattal leen ma kii noqal leen ma kii bu ko jox bu ko jox parrainage am ñëwul indi ko tey teg ko fii moom noonu lay dundee en fait Macky moom Macky Sall peuple bi dañuy dañuy dund ci humeur Marème Faye Sall ak Macky Sall parce que Marème Faye Sall tam day jàppalu parce que euh, Amadou Ba bii ngeen gis nii ka Seynabou bi la gang à Marème fay ñoom ñoo leen jàppalu la gang à Marème Faye parce que Seynabou am na lu ngeen yëgul ci ci kaaw Seynabou Seynabou dañ ko woo téléphone dañ ko woo téléphone ne ko kaay nga wuyu si euh, euh, gendarmerie Colobane comme mooy seen seen yooyu ñu leen di def rek quoi <laughs> <laughs> ndax Sénégal Macky napp na leen nag Macky da leen a nappa nappa nappa napp ba nga xam ni pouvoir bi dootul musa amati ci réew mi ni Macky nappee sénégalais yi dafa <laughs> dafa jéggi dayoo mooy mel ni benn grand boo xam ni wala benn boy boo xam ni dafa napp benn nit noo gis nga euh, sama exemple laa joxe bu ma nekkee sixième secondaire musuma am doole nag nu ma nii dama yàgg nappaate dama nappoon ay boo yoo xam ne ñoo ma wëroon ñu ma bokkal table ak ñu nekk sama kanam ak yooyu parce que école privée laa doon jàng école privée catholique P12 léegi man sama baay baadoola la pour mu fayal ma 6000 francs yi sax lu ne laay daj saa daf may saaga ndey ci mbedd yeeg lu ne pour balaa ma benn année laa ko def école privée benn man comme am naa fit ma napp ñi nga xam ne ñoo ma wër mooy ki ma bokkal ban ñaar ñi nekk ci kanam ak deux yi nekk ci ginnaaw léegi man du ma ndékki bu ma ñëwee du ma ndékki mais damay ndékki xam nga nu ma na damay na part damay ñëw rek ne ci kanam loo yor mu ne ma man mburu ak euh, porc laa yore porc sa tey moom porc lañ ki ma ne non du ma lekk porc yow téel yow loo yor mu ne man non mburu ak ñebbe ma ne wàccal si suuf si suuf table bu ko wàccee si suuf table bi ma encaissé ci suuf dugal sama saak ne ko yow loo yor booy loo yor man mburu ak euh, beurre man non tey ma aw ma envie lekk ay eh, booy loo yor mu noo man mburu ak soos laa sama yaay mën a indi donc bu récréation bu jotee mu dugg ci douche bi lekk ba sama biir fees ñoom moy lekk seen mburu yi lekk ci lekk mburu yi ba sama kii man naan ci ndox mi ba ne kër ñëw toog doonu ma ndekki ndekki bi ci école bi laa ko doon yaakaar ñëwul indi danaa la ñuus ama suba na ngeen indi ndékki ño waaw ragal la ñu woon suba na ngeen indi ndékki que doonu ma ndékki léegi ci ñoom laa doon ndekkee année boobu yëpp dañ maa mujjee boole préfet ba ba préfet bi yóbbu ma bureau noq ma noq yu metti sax di ma front concert la table di ma assis debout di ma dóor yi régal ba muy bëgg parce que dañ maa mujjee boole tu vois donc Macky Sall dafa mel loolu la def peuple bi daf leen a nappa nappa nappa napp ba munu duñu lekk duñu naan di di di leen di leen def lu neex léegi dem na ba nga xam ni léegi Macky Sall moom buy buy convoqué peuple am <laughs> téléphone la leen di convoqué <laughs> da ngay gis benn suuleet naa rek ne allo Moussa Wa waaw ça va man la man la leet naa Ndiaye Moussa Wa mu Wa Cissé waaw leet naa Ndiaye ça va na nga def waaw wuyu sil dik suba yaay yooyu yaay yooyu ne waa maa ngi ñëw rek eh, eh, coupé ñu ne yaay jëlaat la yooyu dig dem ñaa o yaay yaay ñaanal leen ma yaay wàccal leen ma kaamil yaay tari leen ma saar yaay dóor leen ma ay xulo àllaahu way yaay yooyu dig woo nañ ma oh, oh, oh. tante yi yaay ji papa ji tiit ay waay woo sëriñ yi sëñ bi ñaanal ko woo nañ ko dig de kii mu muxura muxura ñaanal ko sëriñ ndimba sëñ ndimba ñaanal ko ñu commencé woo sëriñ yi fekk benn doomee xaraab gu toog fee moo <laughs> noonu lañ def Seynabou moom tamit Seynabou dañoo jël rek téléphone rek allo waaw Seynabou kooku ah Seynabou man la général kii kaay wuy si di uh, wuy si Seynabou jël ay bagages am wuy ba mu wuy jee chef bi nee na ko yow man xaw ma la wallahi laazim chef bi def na ko man xaw la <laughs> yow yaakaar mu ne ko man la Seynabou dem dañ maa woo dama ma ñëw wuy si fii brigade bi gendarmerie bu Colobane kooku ne ko yow ne ko non man gisuma fi sa tur de sa tur yeeg seegu fi de mun a ah, mun a waaw dam leen laaj Seynabou dina leen expliquer Seynabou ne loolu vendredi la woon vendredi chef bi jël téléphone am woo dik woo woo procureur procureur ne kuy kooku non je connais pas cette fille là procureur Abdou Karim ne ko non je connais pas cette fille là mu ah, dafa ñëw fii ne ne yow yaa ko woolu affaire yooyu quoi dañ ko woo démb procureur ci boppam ne non je connais pas cette après gendarme bu mu fa fekk ne ko léegi da ngay bind dangay def procuration quoi da ngay bind xaw ma lan benn feuille daal wane nii ñëwoon nga fii mais ñun woowuñu la ak nangu c'est ba pare ko léegi ñëwal lëndi lënd bi lañ ko jàpp démb ne ko ñëwal lënd de fekk boobu gars yi huilé nañ affaire tak ñëw na fa gars yi gis nañ ko après woote tak tak tak procureur moom tamit yéegal téléphone bi tak woo ñeneen ñi lan la ñu ne ko non seen bu moo ñëw mais ñun xamuñu kuy kooku affaire ñun non non jàppaleen ko procureur ci noonu la ko xamee da ngeen ko bàyyi mu dem waaw non jàppaleen ko nga naan dëgg bàyyi ko mu dem yéen jàppaleen ko jabaru kii la ah jabaru Tayiru Sarr la jàppaleen ko mais non non non jox euh, sa waay na ko gendarme bu mu fekk fële sax gendarmerie Colobane bi jox nañ ko benn kii bind na benn procureur mais lundi lañ ko woo non da ngeen ko waroon jàpp mun njaaxule ko kuy mun jaaxule non benn gendarme la bu nekk buy taxawaalu foofu moo ko woo moom lañ jox téléphone ko wool wool Sénégal mun jaaxule ko jàpp ko mu marché mun jaaxule lañ wax mu woo ko mun jaaxule woo ko mais mun jaaxule waxu waxu leen ko mais mun njaay moo ko mun njaay nee naa ko boo wooyee Sénégal da nga koy wax kii kii wax ko kee kii wax ko kee moom moo tamit mun jaaxule koo la wër na ma amuloon lu mu lekk xaw ma lan xam naa caaf la doon wër noonu bu fàtte affaire dafa ñëw amul lu mu ndekkee wala dara noo merde euh, waaw non non mu ñëw lënd bi la ñëw bu mu ñëwee dee mu ñu jàpp ko <laughs> bu mu ñëwee démb lañ ko doog a jàpp wallaay mu ñëwaat ñu ne waaw waaw waaw wax dëgg waaw yow yow seen yaay seen bu non waaw waaw ah, d'accord kaay ci lañ ko jël tek ko foofu ci see kaay kaay kaay kaay ah lan la ah <laughs> ñëwal yow sa tur ah, da ngaa dem rek sa tur ñëw ñoo ko da ngaa dem rek sa tur ñëw ah bon sama tur billaahi da sa tur ñëw toogeel nii garde à nañ la yóbbu ci kanam procureur nii seen bu noonu wallahi al azim billaahi wallahi wa taala nii la demee lundi lay doog a bu mu ñëwee <laughs> dañ dem rek sa tur egsi mais di jàpp sénégalais comme ay xar ay bëy jàpp ay téléphone quoi. koo xam ne Ousseynou Bathily Ousseynou Bathily waaw. waaw Ousseynou Bathily na nga def waaw ça nee na ça va bien waaw man la caporal Tungaañ man la caporal Tungaañ ah caporal Tungaañ <laughs> bu fan. non brigade spéciale des des renseignements généraux très extraordinaire euh, euh, du euh, de la brigade de la gendarmerie de Colobane ah waaw waaw ça va <laughs> waaw ça va mon général ça va fekk moom waa ji mi ngi lay wax caporal caporal waaw mon colonel <laughs> mon colonel ça va nen def <laughs> mon colonel ça va waaw waaw bismillah waaw wiisil suba ah. fu mu wiisi noonu non wiisil gendarmerie gendarmerie bu Colobane à dix heures dix heures zéro minutes des armées ah <laughs> waaw d' accord d' accord mon colonel fekk ab caporal d' accord mon colonel <laughs> téléphone bi commencé daw dugg si réseaux sociaux on m'a appelé on m'a appelé au téléphone wuy yaa yooyu le général colonel mu ngaañ m'a appelé aujourd'hui je dois répondre demain nga gis gole yi commencé di commande ndeysaan mastawaay non mu ñël eh, Macky Sall li ñu ko war a ñuus non Macky Sall li ko war a noq non Macky Sall rek dafa pël non Macky Sall dafa réew non Macky Sall a déggal commentaire yi nag ñëw ñoom ñëw xool ngi toog moom moom di annoncé suba gars yi suba damay wuyu si woo nañ ma léegi le colonel Tungaañ fekk caporal la le Tungaañ maa appelé ñu commencé <laughs> non Macky Sall mi ngi appel a waa ji dem ñu ñu garde à vue ko te amuñu dara luñ ko jàppee garde à vue ko lu ñu luñ ko fenal garde Sénégal Macky Sall noonu la yàqee suñu institution yi tekkiwuñu dara dara duñu tus moo tax chaque jour dama leen wax noonu nan leen ñun gars ñu ponkal yi ñuy ragal yooyu ragal barke alxuraan ponkal yooyu ñun la ñu ragal <laughs> ak suñu tuutiwaay ñun ponkal yi ñu ragal ñu nekk Sénégal di leen terroriser ñun ñun la ñu ragal ñun duñ toog guddi te woote wuñu di jéem a xam ay renseignement billaay wala ponkal yi naan ay général ak ay colonel ak duñu dara ba ñoom colonel Cheikh Sarr <laughs> maa ngi koy nuyu de passage colonel Cheikh <laughs> maa ngi koy nuyu xam na ma xam naa ay ñoo gën a tàppat lañ bu ñu yëngalee dara ñuy woote woote di jooy di ñaan di saraxu barke alxuraan di wër ñu wax ama yooy yooyu non woo leen moo la man mënu ma ko wool kii fekk duñ dara duñu tus grand yooyu duñu nix mais dañoo napp gars xeetu nappel goo xam ne gars yi ay yàlla lañ leen def quoi ñi leen di woo ay téléphone ay ay appel téléphonique convocation par téléphone mais foofu mu am loolu fan laam nan la nit di convocation ci téléphone ñaata ñoo nekk ci kaso bii rëbës ak liberté 6 camp pénal gee yoo xam ni ñooñu convocation téléphone lañ leen wooyee ci lañ ci lañ gëj a gis seen yaay comme porte aller sans retour ay convocation par téléphone mais saay faites-vous respecte faites-vous respecter ay nit ngeen doo ay mala ay nit mun ñu toog fu ñu toog di leen gololoo di leen fowee te tekkiwuñu tus duñu dara loolu lu koy def nag moom mooy nee naa leen booloo leen booloo leen ànd leen nekk leen benn booloo leen ci ngeen leen seen force di amee njëriñ boo leen boolee seen force day am njëriñ ngeen tekki dara ci réew mi mun a taxaw di résister résistance boobu moo leen ci mun a génne mais tant que yéen a ngi bàyyi ay nit di dem ngeen ne dooleen leen manifester wu xam nga lan mooy manifestation lan lay wane manifestation day wane ni li ngeen teg nit ki nanguwuñu ko mais qui di rien comme ça bu ñu jàppee du Ba bi ñëw nekk vache à laitière peuple bi di leen éveiller di leen waxal di leen xamal di leen yee di leen wax li xew di leen tempérer des fois ñu jàpp ku mel noonu amul manifestation bu gën a tuuti ça montre que vous l'avez vous avez accepté cette forfaiture ça montre que vous avez accepté cette forfaiture parce que xeexu leen ko wanewu leen naqar wanewu leen mettit mais bu boobaa Macky Sall day ñëwaat parce que ñëpp ngeen dem ci mur de lamentation bi rek yuuxu fa rek fa faalewul loolu nit bu amee benn forfaiture wala injustice bu ñuy teg doomu aadama peuple bi dañu war a génne même bu dee benn vingt quatre heures la wane ni lii ànduñu ci lakk lii taal lii boyal lii moxoña lii ba ku fa romb xam ni peuple bi dañoo génn tey fippu ndax li ñu teg telle personne ñu ci du dëgg du yoon wane nañ seen amertume fu foo jaar gis ni peuple yi romb nañ fi foo jaar gis ay yàqu-yàqu lu wan ni peuple romb nañ fii dem bu boobaa Macky Sall day xam ni lii mu téye ci loxom mais bañ bu tàng la bañ bu tàng la bu boobaa dina xool nan la koy tege donc il faut ngeen di maanaam joindre euh, l'utile l'acte à la parole l'acte à la parole ngeen bàyyi seetaan ñi jàpp nit yi comme ci yéen di leen benn bennal ak di leen yóbbu man je l'ai dit à mon petit frère France ba France daj Paris ba Paris daj liñ jàpp sama petit frère jàppee wuñ ko doomu aadama est-ce que mës ngeen dégg ma wax ci sama petit frère bi ñoo bokk ndey ak baay mon petit frère Idrissa Niass amul activiste combattant bu nekk Paris bu ñu interpellé ci niñ ko jàppee amul xeex bu amul buñ ko jàppul et pourtant ñoo bokk mosu la dégg ma tudd turam parce que dama ko te ñoo ñëpp maa leen influencé man sama kër ku fay xeexkat ku ma mag ku ma ndaw man maa fa njëkk a xeex bu may xeex ñoom ñi ngi soli kuus ñi ngi leen di ngemb maa njëkk a xeex sama kër maa fa njëkk a nekk gréviste man la sama papa jur maa njëkk a nekk gréviste sama kër maa njëkk a nekk bañkat ci sama njaboot je suis la première personne rappeur gréviste combatant man maa génn ci famille boobu nekk ci combattant changé ñëpp bu may xeex ñoom ñi ngi may topp maa influencé képp kuy xeex sama kër maa la influencé maa la def kat sama askan laa la sama askan ba mu jeex tàkk maay premier rappeur premier gréviste premier combatant premier xeexkat man la sama askan ba mu daj koo gis muy xeex man la xool koo gis muy xeex man la topp maa njëkk a woote sama askan ba mu daj kaa leen ni xeex ci mbedd mi après famille bi yëpp ma topp bu njëkk bi dañuy wax kii dafa dof kii kii day xaru kii day nangam mais famille yëpp ma topp sama rakk Idrissa Niass moom ngeen di gis muy def ay live di xeex di wax gëm ko luñ ko interpellé ci France amul doomu aadama buñ fa interpellé chaque jour mi ngi ci kaso bi chaque jour te sàccut jëlul alalu jàmbur xeex saa yu fa Macky Sall ñëwee mi ngi ci kaso bi ba Youssou bu mujjee ñëw ñu koy yuuxu mi ngi ci kaso bi ba tey lañ ko doon jugé musuma ko woo musuma ko wax dara xam nga lu ma koy wax booy yow yaa ko choisir c'est ton combat bul xaar daray sénégalais boo boo xaaree sénégalais seen réaction di nga am déception de ndax gaaw nañ ci wor gaaw nañ ci daw nit gaaw nañ ci fàtte nit soxor nañ benn xeetu soxor boo xam ni même soutenir nit sax dafay dafa diis ci ñoom des fois dafa bëri ci ñoom ñu soxor ñu bon ñoo xam ne bëgguñu di partager iñaan seen xol yi bu ñu sañoon nga yàqu bu ñu sañoon nga torox mais ñooñu ñëpp te pourtant yow ñoom ngay xeexal mais ñoom malgré que xam nañ yow da xeex pour ñoom mais dafa bëri ay xol yu lëndëm ay xol yu tëjju ay xol yoo xam ne gars yi dañoo iñaanante ba nga xam ne même commentaire sax dañ koy soxore pour ñoom bu ñu commenté da ngay tekki pour ñoom bu ñu la commenté wala ñu partagé la da ngay da ngay tekki pour ñoom bu ñu la xoolee ngay tekki donc loolu dafa am ñu bëri ñu ñu nekk ci seen xol yi donc il faut nga am fibre patriotique bi gëm li ngay def def don de soi pour la patrie ni Ousmane ko di def nga def ko moom xaarul dara ci sénégalais yi dara xaaru ko ci sénégalais bu waree grève tàggu leen bu waree bàyyi du leen tàggu buy waaj dee sax mi ngi ci du leen tàggu parce que Ousmane ko dafa xam ni moom responsabilité patriotique am da koy matal buñ ko trahiré baax na buñ ko waree baax na buñ deful lu ñu wax baax na mais moom li mu wax ak ñoom da koy def chaque jour loolu laay wax sama frère nekko defal te yàlla tax defal ngir bëgg bi nga bëgg sa askan defal ngir bëgg bi bëgg sa réew bul def pour xool ci ñoom parce que boo xoolee ci ñoom rek tey jii justice bi da ngay gis ni France mi ngi am cent mille sénégalais te ñi ñëw ci justice ñu trois ñi ñëw pour soutenir la ñu trois bu Macky Sall ñëwee France ña fay génn ñu cinquante te pourtant France li mu am ci sénégalais New York amu ko ci sénégalais te France mu bu ñuy manifester te taxawaalu nii dañuy mat cent mille bu fa Macky Sall ñëwee du ñu mat trente ba ñuy jàpp Californie ñu trente. Macky Sall bu mujjee di matañu 30 ñoom ñëppay liggéey di wëri lu ñu lekk wala lu ñu naani donc boo xoolee ci ñoom comme tey buñ koy atte tey tey justice lañ ko atte buñ ko atte tey mooy quatrième xaw cinquième fois buñ ko buñ ko attee justice devant le juge mais je lui ai dit que booy bu mu génnee dafa ma woo ma ne ko xoolal foofu noonu ñaata sénégalais ñoo fa mën a ma ay un deux trois quatre cinq sénégalais man la ko voilà. te pourtant France y a plus de euh, deux millions wala un million et quelques de sénégalais. ñi France Paris rek lu fa nekk Sénégal kenn mooy li ma la doon wax démb bul xool nit yi bul xeex di bàyyi xel nit yi bul xool di xaar ci nit yi dara defal te yàlla tax bul sàcc alalu jàmbur taxaw ci devant le juge bul jël alalu jàmbur taxaw devant le juge xeexal ngir sa nation pour taxaw devant le juge di wax ak fierté ne man damay xeexal sama dëkk damay xeexal sama nation loolu moo ma tax ma jàkkaarloog yow ma alalu réew gaañuma fi citoyen français ma fi citoyen français jël fi portable am Sénégal moom fi indi boo may attesté grâce à l'amour patriotique bi mu am ci Sénégal moo tax man ma taxaw fi moo tax ma ne ko doo ma gis sama soutien moom gisu sama soutien rek xam nga partage ma ko nee naa leen tey laa njëkk a laa njëkk a wax ci moom te tey lay jeexaat pour waxal leen ni Idrissa Niass buñ ko jàppee bu leen ma woo duma ci wax duma ci intervenir xam nga lu tax parce que sama combat sama combat la combat am la dafa war a combattre pour se libérer dafa war a combattre pour libérer les miens dafa war a combattre parce que liggéeyam la li muy def mooy wareefam donc bu ma ci kenn woo bu ma ci kenn woo du ma ci intervenir du ma ci wax musuma ko cee woo ci sama combat du ma bu leen ma woo ci tey jii bu ànd ak yéen di xeex ñu jàpp ko pour man je trouve mal benn nit bu nekk France naan woy Mollah wooteel jàpp nañ sa rakk bi mais yow lu foo téye wu. téye ma jot a woo loolaa yow na yéen foo leen nekk vous êtes en France avec lui muy xeex ñu jàpp ko jàpp ñu leen léegi man ma war a man maa war a intervenir du Canada en France dama war a intervenir quoi. Euh, ana lan mooy seen représentation foofu ci France bi lan mooy seen taxawaay. daf leen seen taxawaay j'ai pas besoin de intervenir de du Canada jusqu'en France c'est son combat et que yéen yéen a yéen ànd ci combat boobu donc taxaw leen ku nekk na taxaw wareefam rek c'est tout man loolu laa gëm du ma inter ak agir ci combat yu jàmbur c'est son combat te je l'ai préparé mentalement et psychologiquement jël naa ko bu muy taxawee premier vidéo bu mu def di wax ci ay affaire armée bi parce que daf na armée daf na police bu mu ko gisee vidéo bi ci laa ko woo préparé ko mentalement ne ko est que tu es pour affronter ça est-ce que tu es pour taxawal sénégalais yi est que tu es prêt pour boot jinxóob xam nga luy boot jinxóob mu ne ma luy loolu grand ma ne ko ngay booti jinxóob ñu lay màtt ci ginnaaw jinxóob da nga koy boot pour rawale ko te lay màtt ci digg ginnaaw ngay booti jinxóob est-ce que pare nga pour booti junkoob mu ne ma waaw man est-ce que pare nga pour affronter est-ce que pare nga pour dee est-ce que pare nga pour gaañu est-ce que pare nga pour daj lu ne ci kaw suuf est que pare nga pour def te yàlla rek tax mu ne ma waaw lépp ma préparé ko ba mu pare ci laa ko sànnee na ko demal boobu ba léegi chaque jour ma gis ko ci ay ñu jàpp ko dañ kay jàpp di jàpp di jàpp musuma ci intervenir musuma ci wax musuma ci partager musuma gis ma leen sama frère bi musuma wane di sax musuma tudd sax tur comme quoi que am naa frère buy xeex musuma ko dégg parce que sas naa ko li ma ko war a sas li war a def xam na ko mi ngi ci moment boobu noonu ñu ngi ko jàpp pourtant man sama frère bu ma bokk ndey ak lañ jàpp mais man Amadou Ba doon soutenir parce que je fais fois à la justice française Amadou Ba laa soutenir parce que moo nekk ci loxoy dëmm yi man xamoon naa ni bu dee dëgg rek booy boobu day affronter tëdd na ci polisu France yi ba ba ba tas ndax combat bi taxaw na ci justice ba tas ndax combat bi mais man Amadou Ba laa soutenir Amadou Ba laa partagé Amadou Ba laa partagé ay postam Amadou Ba laa laa ci ci ponkal foofu noonu di leen menacé libéré leen doomu jàmbur yi pourtant woote wu ma France parce que man xam naa fi Amadou Ba nekk moo gën a dangereux foofu fu France te dañ ko fekk ci biir nit yi choisir ko moom ambassadeur bu Sénégal bu Macky Sall moom moo dem xool idi ba mu neex ko ne ko ne policier kee moo moo ñëw yàq fii kee moo yàq ambassade woo sama frère bi gars yi ñëw jàpp ko yóbbu mais loolu je fu fous c'est son combat il est dans son combat man li may wax rek moom mooy ñi nekk France bu ñu jàppee Idrissa bu leen ma woo bu leen ma message il est dans son combat et il doit s'assumer c'est le risque du métier et c'est le prix à payer lu ma leen di wax rek moom mooy def leen ni moom taxawee leen taxawaay bi mu taxawee ndax ni mu bëggee projet bi ak don de soi pour la patrie boobu muy def ngeen def ko jaayante leen ni moom na leen ko jaral day liggéey de mais saa yu combat jotee mu ne ko fa ñukk du liggéey day liggéey de day liggéey yor njabootam foofu de waaw oui soxnaam mi ngi foofu mi njabootam ma ngi fi day liggéey de mais mu combat musul am mu dem liggéey komba musul am mu dem liggéey fu komba amee mu bàyyi liggéeyam affaire bi dañu koy jaral dañu koy jaral dañu koy jaral le peuple lenn kese lañ mun a wax ci ñoom mooy alhamdulilah jërëjëf dañ leen di ñaax rek ñu yokk mais peuple bi macha allah ay jàmbaar lañ fàq ndax loo wax kenn am na keneen koo xam ne mi mi mi mi ngi def lu lu macha allah donc peuple sénégalais bi c'est c'est un peuple à remercier à réconforter et yokk leen ñaax leen ñu yokk combativité ñu yokk don de soi ñu yokk bëgg seen patrie ñu yokk am fibre patriotique boobu noonu di leen di leen animer c'est le plus important nga gëm sa combat nekk ci mu jaral la lu ne loolu moom moo ci am solo li ci des yëpp ay détails la lu ñu jàppoon démb nañ ko jàpp buñ ko bàyyi mooy mooy on doit continuer ce combat on doit continuer ce combat ce combat là mooy Ousmane ko day dem ci élection yi par A ou par B bàyyiwuñu ko tey bàyyiwuñ ko ëllëg bu ma leen waxee loolu nag mooy buleen takk naan da di xaar justice lu justice def baax na lu point bu yokk la rek dañ ne cin lu mu xat xat xat dees na ko xorom dem xaj na ci donc suñu combat combat boo xam la combat de principe la mooy Ousmane Sonko day dem ci élection yi dara teewu ko te dara teewu ko da ciy dem léegi nag justice bi bu ñëwee ànd ak ñun ci loolu dañ koy sante yàlla mais ñun ñi ngeeg suñu fulla ak sañu fayda ne xeex bii Ousmane Sonko day dem ci élection yi loolu luñ gëm la ni Macky Sall gëmee ni Ousmane Sonko du dem ci élection yi ñun noonu lañ gëmee ni te faalewul justice moom bëgg-bëggam la ko waxee bànneexu bakkanam la ko waxee ne Ousmane Sonko du dem ci élection yi ñun suñu bëgg-bëgg ak suñu bànneexu bakkan ak suñu bakkan lañ ci teg pour Ousmane Sonko dem ci élection yi léegi justice bu ñuy xeex fa ñoom nañ xeex bu ñu am bu ñu ci amee ndam alhamdu bu ñu ci amul ndam it ñun dañuy continuer ci luñ nekk donc loolu nañ ko nañ ko wax ñëpp ñu xam ko ñun xaaruñu justice bi ñun ñoo déterminé wu ne soo ko day dem ci élection yi loolu suñu détermination la suñu abnégation la suñu amour la ba pare lu ñu gëm la ne day dem ci élection yi léegi nag lu ñu justice bi jox alhamdulilah lu mu ñu jox dañ koy arraché il faut gars yi xam loolu incha allah par la volonté de Dieu incha allah et Dieu est avec nous voilà euh, donc comme nu ma ko waxee gars yi combativité résistance bëgg-bëgg amour bu am ci suñu patrie focus ci combat bi buñu ñu dara divertir ñun on préfère euh, vivre dans la pauvreté dans la misère avec suñu dignité que di euh, euh, euh, mourir avec suñu dignité du moins que vivre ak ñàkk suñu dignité vivre dans mourir dans la pauvreté et dans la dignité que de vivre dans euh, euh, la trahison ou ay même même si wala vivre dans l' esclavage du ñu nangu kenn moom ñu du ñu nangu kenn te ñeewuñu tamit ñi nga xam dañoo dem jaay seen taat yi jaay seen ngor yi ndax alalu àdduna ñeewuñu leen léegi nag li ñuy wax mooy Macky Sall wax naa ko ko te moom laa koy tëjee na xam ni wallaay dañuy fayu man de xaaral ma def nii sax mu leer Macky barki Seydina Muhammad billahi dañuy fayu man wax naa ko waxaat ko nee naa leen ma kan mooy jël réew mi yàlla na mujj ci loxoy Ousmane Sonko te xam naa ni incha allah bu soowee suñ borom ci kattana ak mën-mën Ousmane Sonko lagay jox incha allah mais dinaa xamal ni Ousmane Sonko les six premiers mois dina tàng ci yow de billaay meurtre yi dina bëri bal fetal dina tàkk de dinañ ko def ni Senzala. dinañ ko def ni digg Brésil billaay wallaay dinañ ko def ni Amérique du Sud wallaay azim si premier mois yi moom néew yi dinañ bari dinañ leen dinañ suuli ba tiit wallaay azim dinañ fayu dinañ fayu dinañ fayu ba seen dernier retranchement barke alxuraan ba xoolal dinañ fayu dinañ fayu ba seen dernier retranchement du ñuy bày kenn xawma luy mun a am nag policiers yi def salle procureur yi def saal gendarme yi ñuy yónni ñuy reyaate nervi yi di rayaate gars yi nii ñi saltekat yi Macky Sall di yónni ci télé kii ñuy reyaate loolu leen mën def leen de loolu mën def leen taal leen kër yi toj leen oto yi leen oto yi tiire leen nit yi rey loolu leen mën def leen seen ku aaye woon sa moomee ku aaye won sa moomeel yéen a ngi wane seen bopp de yéen a ngi jàpp nit di di tëj di ray di tiire di taal di def leen neex mi ngi saf mi ngi neex de gis ngeen nu mu safee di tëj di def leen neex da ngeen xam ni incha allah deux mille vingt quatre bu ñu jëlee pouvoir bi <laughs> ku fi ñëw naan ay bàyyi leen fay yi sax ñu boole la ci. illaahi bal yi dina tàkk kër yi dinañ tàkk dinañ fayu ba ngeen xam ne fayu nañ. di xam ni ban dinañ fay ba mu saf-saf ku aaye woon sa moomeel dinañ taal seen kër yi dinañ leen tiire tiirey fetal dinañ leen daqe dinañ leen nokk ci kaso yi dinañ six mois yu tàng jër jër jër jër jër jër ñu lijjanti lépp ñuy war a rey ñu rey leen ñuy war a tiire bal ñu tiire leen ñuy war a ñu éliminer leen ñuy war a suul ñu suul leen ñu ñu war a disparaître loo ñu disparaître loo leen ñu ñu war a ku ci nekk ñu fay bu ñu mam mat sëkk ñi ñu war a tëj ñu tëj leen te dëkk bi vide ba de càkk bandi yi ñëpp ñiy dee ñi nekk ci kaso yi ñuy disparaître ñu tëmbal leen ci géej gi mun nañ ko gënu leen ñu sadik de gënu leen ñu sadik de gënu leen ñu sadik dàqu leen ñu tiire gënu leen ñu mun a kil kilaa bi kilit incha allah bu soobee yàlla kon lu ngeen mën na ngeen ko def te moo tax ngeen di rey seen bopp ndax xam ngeen ni boo leen daanoo di dee te da ngeen di daanu boo leen daanoo di dee daanu dee la te di ngeen daanu te di ngeen dee loolu moom maa koy wax Macky Sall dinañ fayu ba ngeen xam di fayu nañ di ngeen fayu ba dinañ fayu ba ngeen naan ñin ñii ñan lañ amal affaire wallahi la azim billaay wallaay wa taalaay euh, ñii leen sant di leen gërëm di leen bëggee bu wér voilà di leen wax ni stay focus rek lu fi des bëreetul lu tax Macky Sall di rey boppam nii ndax xam na ni wax waxuma la kaso de mais xam na ni bës buñ jëlee réew mi <laughs> ñoom ñi ngi kii rek ñun ñu toog ne ñi ngi kat ji di ñuy di ñuy joggi di ñuy gaañ muñ rek gaay muñ leen rek muñ leen de jeex na de xaaruñu CPI de xaaruñu CPI de Macky Sall ci kaso Sénégal yi lañ koy tëj haute trahison ngeen naan ma CPI CPI ñun xaaruñu CPI lijjantewuñu CPI yow yow ñun dëkk bu ñuy jël yen yéen fi toog naan dañuy xaar CPI xaaruñu CPI Macky Sall haute trahison la def ci pétrole beeg gaz bi jël rakkam bu mu bokkal ndey ak baay jox ko suñu pétrole suñu gaz suñu ressource naturelle haute trahison luñ ko fi def du jeex du xaaj haute trahison lañ koy noqe ci kaso Sénégal yi duñ ko yóbbu ay beneen CPI yu lan balaa CPI di wax fekk yóbbu nañ ko Macky Sall bu ñuy def défilé défilé national bi le lendemain lañ koy dóor ci kaso bi haute trahison mu xaar Macky Sall foofu lay croupir man nga naan ma ay CPI waaye ñun dañoo ñàkk fayda bay demi CPI ñu koy lijjanti Dakar seen maam fii ci Sénégal bu ngeen koy gisal seen bopp duñ ko yóbbu benn CPI fii ci kaso bi ngeen koy gis fii ñu dëgg seen maam tëj leen fa tak marquage à man moom man man moom sama gang ba mu nga fa sama gang ba kagul yi laay wàcce balaa maa ñëw kagul yi laay wàcce conteneur u kagul conteneur u kagul gant tout dugal fetel ci ci ci ci ci barigo yeeg dugal ko ci conteneur yi mu wàcc ay fetal yu bees tàq voilà ay AK 47 ay 9 millimètres la ay RPG 7 ba mu kii sama gang bu saf saf ay ca voilà ñu gang boo xam ne oto oto bu yu sap saf ay ay ay pick-up américain ñu wër nday gaa yi wan ba woon di di di pointé wu seen biir comme fii gang yi ni ñuy def pointé wu seen koñ benn mbay jaxate génn xaw ma tun jaxate nga rokkos ko quarante coups quarante bi koñ bi yëpp daw dugg nga teg ko ci ayca bu euh, koñu ñoom califourchon euh, pointé ñaf maamam trente coups continuer benn nuy mun nga matal lépp benn nuit nga ravager tout jaar yoonu gàmm bi génn na gars yi tasaaroo leen point man maa ngi noonu loolu laa ci amoon lu ci def bu ma ñëwee fii ne leen gars yi def naa li ma war a def ñi leen sonaloon fii di leen saaga ay nday di leen sosalaka di fenaka di def lu leen neex di leen di di leen rey ba pare di ko sosal ñoom ñëpp éliminé naa leen si man mii la maa ko def maa la ko def ñoom ñëpp wax ji jeex ñu jàll ci leneen loolu moom maa ko déterminé wu gis nga nu woo ci combat bi noonu laa déterminé woo ci wàcce ñooñu noonu laa déterminé woo te ñu ma xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xam nañ ni tol na ma foofu ndax am na ñu ma ci woonaan ma noo booy bu leen wàcce gaañ leen gaañ leen ba ñu mujjee ci ay séjour lente xam na ñu ma xam dëgg dëgg dëgg dëgg xam li ma capable ak fu ma fu ma toll ci sama combat bii ñu ci ñu ñooñu woo nañ ma ne ma sawaay mola bu leen rey gaañ leen tiire leen ay ay bal ci tànk ay bal yi nga xam ne nga xam ci seize jours lant la ñuy mujjee wala ay bal fetal yu yuy fëq ay ŋaam mais incha allah léegi rek bu soobee yàlla ay Jaram Bandiakeeg ay Moustapha Diop ministre incha allah yàlla nañ fi fekkee 2024 bu soobee yàlla yàlla bu ci kenn dee ci ñoom sowe yàlla kon nag un homme averti en vaut deux fàtte wuñ leen de fàtte wuñ leen de ñooñu mooy gën a tuuti ci ñi may wax ñi ngi ñëw ci kanam li ci kanam raw li bët yàlla ñu fi yàlla bàyyi ba boobu kon nag gars yi la combat continue stay focus waa jaajëf sama gars gis nga maa ngi maa revenir at vite fait ah retour bi dara waralu ko très bien am na ku ko répondre lii nii waxoon naa leen ko avant moo génn wax naa leen na leen ngir yàlla du ma yàlla du ma yenent du ma xut bu samaan du ma gisaane waaye politique bii Sénégal lu ma la ci wax takkal téere ndax xam nga ku ñuy kuñ ko séqal laa xam kuñ ko séqal laa xam lu mu capable ak coupable muy Macky Sall avant lii di wàcc sax wax naa leen ko ne leen ne leen Macky Sall faalewul justice he don't give a fuck about the Senegalese justice faalewu leen Macky buur la buur xam nga yéen a ngi ñëw naan ma tu as raison tu l'avais déjà dit c'est pourtant dama coupé léegi affaire ba wàcc aaya ba wàcc man xamoon naa ni DG du jox dara Ousmane Sonko parce que détermination wu Macky Sall mooy Ousmane Sonko du dem ci élection yi moo tax ma ne peuple bi bàyyi leen di délégué seen combat yi bàyyi leen au lieu ngeen xeex dara ngeen di yaakaar ay justice Macky Sall faalewul justice bi yaakaaru leen lijjantiwu leen nawloowu leen sax nawloowu leen da leen di foowee yéen yéen sénégalais yeewu leen gars yi ñu ngi leen di foowee bàyyi leen délégué seen combat ak justice bi Macky Sall faalewul sax CEDEAO même CEDEAO yi ngeen di xaar nii man mu tax moo leen gisee ngeen di jibile ci ay CEDEAO ci ay ay ay ay cour suprême buy kii ay ay non damay ree dama naan mais ñi est-ce que xam nañ Macky Sall c'est wax nañ leen ba tàyyi ci Macky Sall sa waay Macky Sall dafa déterminé wu de barki Seydina Mohamed bakkan la ci teg nee na Ousmane Sonko du dem ci élection yi billahi wallahi wa taalahi il faut ngeen am détermination bu ko raw pour Ousmane Sonko dem ci élection yi dama ne Ousmane Sonko ay waxi kese du ko yóbbu ci élection yi maa leen ko wax ay Ousmane Sonko loi bi ngeen di wax ni du ko yóbbu ci élection yi Ousmane Sonko justice bi ngeen di foog du ko ci yóbbu Ousmane Sonko ku leen wax loolu man maa ne man chaque jour ma challenge koog yéen sa est-ce que xam ngeen Macky Sall fu mu fu mu ci ne Ousmane Sonko di dem ci élection yi bakkanam la ci teg bakkanam dafa xam ni deeyam la dafa xam ni deeyam la dafa xam ni torox tàngeem la dafa xam ni Ousmane Sonko dem ci élection yi mooy yàqu na àdduna ak alaaxira da ci taxaw daf ne dee rek du dem ci élection yi ngeen nekk fii di guddal jël la ka taxawaaloo ko yeexal mbir yi man xaw lu leen taw ñu ba pare nag gars yi mujj leen a manipuler ngeen mujj nag yéen tey la seen combat délégué seen combat di lijjanti ay waxu ay conseil tel ay livre xar fi jaar fi Ousmane Sonko dama ne lu dul askan wi xeexal ko du dem ci élection yi déggu leen ma de lu dul askan wi xeexal ko xeex bu tara tara tar can taxaw képp ku la ne mun na yóbbu Ousmane Sonko ci élection yi nee ko da ngay duul man la ko wax du sëriñ du xutbu samaan du journaliste du kenn mënul yóbbu Ousmane ci élection yii te xeexoo kenn <laughs> kenn moo tax damay am si dëgg rek dëgg dëgg laay am ba adduna di tukki képp ku challenge ak man ne mun nga yóbbu Ousmane Sonko ci élection yii ci ay waxi kese ci ay justice ñëwal maa lay gañe loo teg ma teg ko lu dul xeex du yóbbu Ousmane Sonko ci élection yi xoolal tey tey tey <laughs> DG dafa am doole de <laughs> DG Macky la moo fa toog dem ngeen saaba si saaba si ñëw ngeen sibile mu ñëw Macky Sall rëkk seen digg na doo demu leen fen xanaa xamu leen ne man la Macky ngeen damati kurti kurti dem Sénat wërti wërti wër Sénat ñëw xoolal DG génne joxuñu leen tous taxawee na la bind na <laughs> jox na leen te dama dama dama ko wax rek bare rek <laughs> DG bind dafa mel DG moment bu ma leen di wax naan DG du leen jox tous parrainage du leen jox tous Macky Sall nee na du gis benn Pastefien loolu kay Macky saal la ko wax mas Macky Sall nee na bugguma gis Pastefien ci terrain bi bëgguma leen gis ci mbedd mi bëgguma leen gis ñu yor parrainage ku leen jox parrainage ma ñuus sa maam xanaa yéen doo leen dégg wax naa leen ko ba taay Macky Sall nee ku jox waa Pastef parrainage ma ñuus sa maam nee na mbedd mi bëgguma cee gis ku ci benn Pastefien bu ciy taxawaalu bëgguma cee gis kenn ku yore parrainage naan da ngay wër di ci dugg ci kër yi di wëri parrainage ku ko ci def mu ñàpp sa maam bi toog di xaar kan mu am fit boobu léegi nag ñi ngi nekk di fooy justice di fooy yéen tey bu saaba si génnee jox leen lii Macky Sall ne sari leen fore ngeen demate daw dem Sénat Sénat ñëw génne DG génn joxuma leen Ousmane Sonko bokkul sax si fiche liste électorale yi te loolu laa léegi léegi bu may coupé loolu laa leen ne leen Ousmane Sonko turam newul ci li Ousmane Sonko turam mais yéen man da ngeen bëgg ma yuuxu xanaa wuy yaa yooyu ngir yàlla la wóor Ousmane Sonko turam nekkul ci liste électorale yi wuy dimbale leen ñu xanaa balaa ngeen di laaj parrainage Ousmane Sonko turam nekk ci liste électorale ay waay ngir yàlla waay ray dimbale leen ma wala man ma bàyyi leen fii man dama sonn dama wax a wax ba tas di waxaa di wax di wax damaa wax a wax a wax ba tas waay waay waay ma ma dem waay bu dee leen nag ngeen parewu leen ngeen tekki ma ma dem sonnal ngeen ma yéen xanaa doo leen dégg Ousmane Sonko Macky Sall dafa rocc ci turam dangat ci liste électorale yi nekk fa. saa pa pa réew mi naqaree defar boo ma leen di wax ni dindi la turam ci liste électorale kenn xamul kañ la xam nga dof bi moom daf man damaa gaa wax ba ñu jour bu ñu dindee turam ci liste électorale laa def live ne leen Ousmane Sonko turam dindee ko na de. nee na non Ousmane Sonko turam mi ngi ci moo laa bul préparé nit yi ci loolu. non moo la man leen hey daw leen Ousmane Sonko turam dindi nañ ko ci liste électorale ba ca guddi gi ñu ko dindee laa leen ñëw wax leen live fa ah non am kenn ku ñëw naa am loo Juan Branco nee na turam mi nga fa man leen daw leen daw leen xeex daw leen génn leen xeex Ousmane Sonko turam génn nañ ko ci liste électorale ma leen ba léegi ba léegi depuis deux mois ñu ngi leen di dawloo ak justice ndax kaay leen cour suprême daw leen ci saaba si kaa leen ñëw fii Sénat ba daw leen fii nangam damane ne Macky Sall nee na liste parrainage Ousmane Sonko ku ko jox Ousmane mu ñepp samaam peuple bi rek ñoo mën a dem xeexi dem nangu ji parrainage ba jox ko Ousmane Sonko sinon Ousmane Sonko du am benn parrainage du dem fenn fenn du fa dem ñu dañoo sonn Ousmane Sonko turam nekkul ci liste yi waaye yenn Sénégal man man daal man xam ngeen laa comprendre ñu toog naa leen bu leen xeex <laughs> mais ñooñu am nañ fit man ñu toog naa leen bu leen xeex de Macky xeex la bëgg toog leen dal leen bu leen xeex mais ñooñu ñoo dëgër fit <laughs> waaw ñooñu fu ko teg man ñooñu man ñooñu ñoo ma tiital man man ni di jàpp Sénégal yi nii ànd ak Macky Sall ci mbiram bi sans ñu xam ko gars yi nalawloo Sénégal yi nii di leen gëmloo mais moo émerveillé ñooñu fu ñooñu fan lañ jàppandu fan lañ jafandu gée bu leen bu xeex Macky Sall xeex lay wër bu leen xeex non toog leen de toog leen de toog leen <laughs> man damay toog di xool loolu nan ay waay ñii ñu ngi nalaw lool doomu aadama yi ñii un mois moo fi des ñu ngi ci mois de novembre un mois moo fi des Macky Sall tëj élection yi un mois moo fi des naa jeex un mois un mois moo fi des balaa cour cour suprême di addu laa xam <laughs> un mois jeex balaa cour suprême di addu Macky Sall faalawul cour cour de la cour CEDEAO <laughs> man bu la gisee tey ñu toog noonu ñoom ñëpp di partagé ndax Juan Branco nee na ko juge CEDEAO bi may ree ma de waay <laughs> Macky Sall foofu la ma neexee ab doomeeraam la boo xam ni sadik la boo xam ni dafa déterminé wu ci éliminé Ousmane Sonko te caaxaanu ci kafu ci foowu ci réew ci ak dafa may xaraam joo xam ni man bu gisee gars yi ak seen guignolerie bu ñu nekkee war a jox xeex ñu toog fi ay CEDEAO ngi àtteeg yeewu nañ tey naan nañ kafeek man <laughs> CEDEAO bu ne woon jox leen sax Macky Sall joxuma ko duuli muus xanaa Macky Sall bi wax naa ay lan mooy yi waaye dama faale nday CPI ngeen naan ko CEDEAO <laughs> déggu leen Macky Sall foofu taxaw ne lan mooy loolu lu ñu wax lan ban cours la ñu wax foofu CP xaw ma CPI xaw ma CPE xaw ma CP CP CP CM2 ou CP xam nga CPI ngay commencé école ne xaw ma cp la ñu wax xaw ma cm lu may dégg noonu ñi ko yab ñu naan ay ñu yóbbu CPI ngeen may waxee wax ay cours CEDEAO ñaata yoon la CEDEAO wax ni Macky Sall kii nga xam ne mooy Karim Wade génn ko deful lii Karim Wade delloo koy léem Karim Wade Macky Sall musu ko def ngeen ne Macky Sall tey ngeen yaakaar ni Macky Sall ñëw di respecté ay justice <laughs> mais sa nit bu la respecté da nga ko daf la nawloo Macky Sall ñooñu toog foofu cour CEDEAO yooyu nawloowu leen faalewu leen ñooñu bu mënuñu wax lu Macky Sall di def catatatatat man daal doo fi yàgg li ma waroon wax wax naa ko ci live be dama coupé rek gis CEDEAO gis DGE seen lettre bi ma ma ma liir rek reetaan ne cey man mii de bu ma xamuloon sama bopp damay dompat sama bopp ne man est-ce que nit laa soo nu ma maîtriser politique gu Sénégal gii goo <laughs> ma ne àdduna dina doxaat bañ amaat beneen moom moo laa morgande nu ma maîtriser politique gu Sénégal nu ma maîtriser Macky Sall Macky Sall dama ko maîtriser maîtriser ba bu may gëmm mun naa la nettali Macky Sall décision balaa ñëw sax ma wax ko décision de Saba si la ñuy commencé di ciblé man leen Macky Sall ko nangu de ah waaw non voilà Saba si dégg nga xanaa tey kontaan nga de saaba si Saba si man leen <laughs> Macky Sall Saba si faalewul Saba si non bi moom dina ko nangu moom danga mën ne ko faalewul Saba si lijjantewul Saba si moom kay après nu mu def ba rëkkandigg saaba si lay wër mais saaba si yow yaa jàpp Saba si nit Macky Sall jàpp pour moom Saba si ab mbalit la looloo am. ba léegi lu saaba si wax faale wuñ ko sax ay waay delloo leen Ousmane Sonko ci électoral Macky Sall nañ waaye mais booy bi mooy kan ñu ne ko non saaba si xam nga am saaba saaba si fay kooku xaar ma yónnee ndayam ay ku inspection générale mu ñu lijjantil ma yow ma xool nu ma ko dàqee wala torox ma naan ku saaba si lijjantil la saaba si foofu ma xool lan la ñu yóbbul ko ñu yónnee ko mu ne maa xaar ba keneen ko ubbeeku fi Sénat bi ñëw di di kii xoolal tey la Sénat wax delloo leen ko tey lañ ko ne delloo delloo ko tous tous te ñu ko wax duñ sax justice gars yi ku ko wax ak ku ko waxul mooy dëgg xeex rek xeex kese xeex dong mooy dugal Ousmane Sonko ci élection yi xanaa ngeen bëgg ko sacrifier teel koo wax ne ko hey sa waay ñun xeexuñu de boobaa mu teel koo xam ci lal hôpital ba xam ni ah ñii jóguñu pour xeex ngi noppal leen ko noppal leen ko boo leen décidé nag ne xeexu leen ngeen daw dee ko ndànk nijaayam baa ngi dox jibi jibi jóob xaw ma jibi siise xaw ma jibi jibi gay ngeen dee ko ne ko ah ñun askan wi ñu de wax ko wax ko Ousmane ñun xeexuñu de xeexuñu Ousmane mun a xam sax ne moom ñu ñan ñu ne ci biir nee na ñii pareetuñ pour xeex pare nañ sax Ousmane xam ne xam ca lu muy ne mais Ousmane mi ngi ci guddi gu bët setegul tëdd ci lal hôpital entre la vie et la mort Macky nekk ci li mu ne am ñuy génn naan bu leen xeex ak ay xeex ba la bëgg bu leen teg duñ leen teg dara ci seeni loxo dara duñ amuñu solution nan leen bu leen xeex ba leen boo xeexul foo foo leen jëm boo leen xeexul <laughs> nan la Ousmane Sonko di demee ci élection loolu dalaa xamul boo leen xeexul lu Ousmane Sonko xanaa ay magie la xanaa da ngeen ay pouvoir mystique da ngeen ay pouvoir mystique yu ngeen yu ngeen yor yu ñu yëgul wala da ngeen xam lu ñu xamul wala dañ xam sëriñ bu leen wax ni Ousmane Sonko day naawee ci asamaan bokk ci élection yi ji tëram ndax dañ koo dindi ci liste électorale yi xanaa balaa ñu laa jox parrainage sa tur nekk ci liste électorale yi Sall nee na dind naa turu Ousmane Sonko ci liste électorale yi am ñu leen di wax naan bu leen xeex calmez-vous nangam waaye ñooñu ñooñu moom <laughs> ah man de des fois damay jommi dama naan mii ñii fu ñu teg lii xanaa dañoo yore ab sëriñ gu ñu xamut wala dañoo yor ay pouvoir yu yu extraordinaire yu mystique yu doy waar Ousmane Sonko de élection yii buñ ko ci gisee dañoo xeex xeex bu tar nag xeex waxoon xeexantu de xeex bu tar xeex bu tara tara tar tara tara léegi nag bu fekkee ne da ngeen yer seen i calcul naa ah bu ñu xeexee dafay toogaat bu ñu xeexee élection du am waaw bu élection amul tamit <laughs> boobaa usmaan nay ñàkk rek de boo leen xeexul Ousmane ay ñàkk boo leen xeexee boo leen gëmee ni Ousmane ay ñàkk day ñàkk mais boo xeexee gëm ni Ousmane day am day am boo leen xeexul Ousmane day ñàkk maa leen ko wax boo leen xeexul Ousmane dara dara du ko yóbbu ci élection yi munul fexe ba dem ci élection yi boo leen xeexul loolu nay leer voilà donc euh, les gars loolu rek laa bëggoon wax pour confirmer li ma wax sànq rek Macky Sall encore une fois he don't give a fuck about justice Senegalese justice faalewu leen Sénat ba wax na lu muy wax DGE <laughs> wax na ñoo na nee na dugalu Ousmane Sonko du ko jox fiche ndax nekkul sax ci liste électorale yi nee na ñu toog xaar ki nga xam ne moom mooy Cour suprême donc <laughs> Macky Sall la ngi laa arrogant réew déterminé wu nekk ci li mu ne xamadi et cetera et cetera voilà donc euh, le combat la patrie aura mort combat bi xeex la nuq national news national noq national news national point te ngeen may ñu jàmm ci article yi sonnal ngeen ñëw ay article <laughs> institution constitution l' article waaye yéen yéen dëkk bi ngeen nekk dëkk bi ngeen nekk sawaay dictature moo fa am bàyyi leen ni constitution bi ak loi yi ngeen di fo ngeen di utiliser non bu pare pour xeex moom sawaay sénégalais bu parewul pour xeex munoo fexe ba mu xeex jógal xeex mu ne la waaye pourtant sénat am na droit bu DG e bañee mu génn li si jox ko ko sénat am na ci droit nga ne ko waaye yow dimbali jógal xeex bi non sa waay dafal ndànk doucement affaire bi yóbbu nañ ko CEDEAO yow gën a xeex non non non sa waay dafal affaire bi mi cour suprême dinañ ko li jógal xeex non sa ku naa xeex ku bëggut a kenn mënu ko xeex loo si tiit tiit tiit tiit da ba demee foog mu am alibi <sighs> jaajëf argument sur argument <laughs> jamono ji kenn mënul leen xeexloo ci affaire bi jaxasoo na de jaxasoo na ba jax ba mel ni biir buy daw ay waay taxaw leen gars yi taxaw leen taxaw leen taxaw leen lillaahi wa rasuuli voilà ok persévérance endurance ah ak li nga xam ne moom mooy combativité les gars persévérance endurance combativité jaajëf peace and love and I'm out Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons.